fas yéene leen gunge ñu waxtaanee actualité waxtaanee jamono waxtaanee itam euh, diine ci ni mu gën a yaatoo euh, te ponk bu ci nekk ci yi ma tudd euh, dañu ciy dalal ñoo xamante ne seen xam da cee màcc bu baax seen xam-xam da cee màcc bu baax a baax alors ci suñu premier numéro bi ñoo am honneur ak privilège dalal fi maître élagie Hadji Diouf di ko xamante ne fii ci Sénégal defe naa kenn dootu ko présenté muy côté avoca bi mu doon waaye itam di ci politique bi nga xamante ni mu ngi ciy yëngatu maître nuyu nañu la. Euh, général. <laughs> colonel de yéeg la général. <laughs> maa ngi leen di fay. di nuyu plateau bi yëpp. macha allah di leen ziar di leen eh, ndokkeel di leen wax di leen baal wax di leen baal di nuyu Sénégalais yëpp di leen wax déwénati dañu leen ñaanal koor gu yàlla nangu jàmm xéewal yokkute sutura tawféex Sénégal lañ am ñu gën ñaan ci weeru sell wi yàlla musal ñu ci musiba yi musal ñu ci seytaane sàmm ñu nañu jàmm ju bëree bëree bëree bëri jàmm ci lépp xaj jërëjëf jërëjëf euh, maître alors ma ñëw nag euh, ci ñi nekk ci plateau bu yanj bi ñoom itam ñu yanj lool macha allah en commençant par les dames ma dem de l'autre côté fekk fa maman Diallo bonsoir. maa ngi lay fay. namoon naa la. yaa sant yàlla bu baax maa leen bu baax a baax di nuyu euh, ñi ma bokkal euh, plateau bi. Mhm. di ko tàmbalee ci euh, Fatou Abdou suñu mag ji. di ko nuyu bu baax a baax di nuyu suñu invité maître El Diouf. Mohamed euh, Diop Fatima Nafi côté Nabien di leen di nuy bu baax a baax oustaz Mohamed Mbaye ak ñi nga àndal ñëpp di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo toog di ñu seetaan à travers la Sen TV. Mhm. di leen déwénti di leen baalu àq ci weer mi. Euh, j'espère que vous passez un très bon ramadan. kon nag mu ci kanamee léegi rek Fatou ñi daal di ñëw ci xéwal yi. bu gisee sama loxo bi di nga xam ne tey moom. incha allah ak ci ci réseaux sociaux bi moom ñi ci nekk yëpp nañu kontaan. donc ñëwaat mhm. en en plus ci suñu yi. waxal mhm. leen lu baax lakk incha allah kon euh, kon na sénégalais yi bàyyi ay commentaire di nga ci di nga ci tànn quelque bu ko defee xéewal yi nga jox leen ko incha allah. partagé ak ñi gën émission tay bi ñoom laay tànn rek jox leen ci xéewal yi. incha allah donc ce sera tout à l'heure Fatou Abdou bonsoir. bonsoir général Khady général dafa <laughs> ko de de colonel naa ne kuy nuyu maa ngi bu baax ak a neexal waaw c'est clair mu ngoog euh, Fatima nuyu naa la fay naa la maa ngi lay ziar bu baax a baax di amaat mbégte ak contentement euh, di partager encore une fois de plus euh, grand plateau ak yéen ñëpp mooy nuyu sunu invité euh, maître El Hadj Diouf di nuyu également Khady ki nga xamante ne moo di Fatou Abdou di nuyu maman maman mi nga xamante ne tey jii nag mooy borom teraanga gi. ñu ngi lay bu baax a baax Mouhamed également di nuyu Nafi Dieye. di nuyu également oustaz Mouhamed Mbaye ak ganam yi mu àndal yëpp. di wax rek baalu nañ ñëpp ak ci koor gi nga xamante ne dugg nañ ci. c'est important on a vu ça tuddee. nuyu naa mais maa ngi lay fay am na colonel bi ma gënal moom. Nah, les vrais sauront pourquoi je préfère la colonel loo bëgg noonu la. kon xadi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. nuyu ñi ma plateau bi yëpp di baalu àq sénégalais yi di leen baal àq aussi di leen ñaanal euh, kooru jàmm maman Diallo moon naa la. maa ngi nuyu suñu invité aussi bu baax tout comme la grande sœur Fatou Mouhamed Fatima euh, yaa Oustaz. j'espère que ren di nga ma may ma kii ren dinañ jàmmoo. comme ñu ngi ci troisième jour. ren nañu rafetoo rek du dëgg. yaa ngi ci deux man mi maa ngi ci deux. <laughs> Eh, ci kanam tuuti xaddi incha allah ñu ñu ñu wax leen di gën a fës ci ci internet bi. d' accord ce sera tout à l'heure incha allah ma dem ci ci Alaaji Mohamed Diop. waaw xëy naa la. <laughs> sama doom maa ngi lay nuyu. yaa ngi si ñi xamuñu ne man sama doom nga. maa ngi lay nuyu. <laughs> di di nuyu sénégalais yi ñuy suivre. Uh-huh. am mbégte teewaat fii comme ni ñu koy defee at wu nekk. Uh-huh. Euh, ci biir jotaay di émission euh, le grand plateau bi ñuy jagleel sénégalais évidemment ci weeru koor gi. di nuyu nag euh, plateau bi yëpp ni ko Fatou waxee ñu tàmbali ci moment borom xéewal yi rek. Uh-huh. xéewal moom yaakaar naa ne. nag ndax xam nga daa sant Ndiaye <laughs> te ñu ngi ci koor gi te. xam ni njaay ni moom euh, lu yàlla xam doy na. tey de la koo gis xam ne moom moom moom am njóobeen la moom moom ragalul xiif donc ñu ngi koy nuyu moom it na fi jéey di ko jox wàcc waaye sunu invité El Hadj Moustapha di la nuyu di la euh, ziare te di la dalal jàmm ci euh, bile jotaay waaye nag sama sama sama sama tooma maa ngi koy nuyu bu baax a baax suma xarit. Mm-hmm. Eh, nuyu sénégalais yëpp am mbégte lool nag xarit bokk ak yow plateau. ak sénégalais yi surtout ci bile jotaa yi nga xam ne moo di grand plateau mooy émission nag préféré wu sénégalais yi. dëgg la voilà. <laughs> mu ngoog sang sang yi. kon oustaz daa dina ñëw ci moom tout à l'heure incha allah mais en attendant dañuy euh, dugg vraiment ci vifu émission bi daal di euh, koy doore ak météo on ci ak Asma Khadija voilà finalement dañu koy doore Fatimata Diop ak euh, actu Ramadan ñu ñu ubbee ko waxtaan wi ubbee ko également actualité bi. Ah, mu ngi noonu Khady comme ni nga ko waxee nag euh, dañu koy doore rek euh, ak euh, actualité bi bokk na ci nag conférence de presse tënk rek bu parti démocratique sénégalais bi nga xamante ne tey dañuy gën di persister ginnaaw bi ñu defee seen recours bi nee nañ nag liñ ciy toftal bokk na li ñuy sàkk moo di ñu daal di tas. Mhm. conseil constitutionnel bi donc loolu bokk na ci li nga xamante ne ñoom loolu la ñu wax ñu ngi xool nag fi wànnante di mujjee ki gëtam. Mhm. avec cette histoire bi nga xamante ne bëgg nañ ko euh, ngir nag euh, ci élection yi nga xamante ne moom lañ bëgg euh, amal léegi nag dañuy addu itam xadi colonel ci li nga xamante ne peut-être moom moo di rek ci campagne bi ak situation bi ni mu demee ñu gis ne professeur Daouda Daouda Ndiaye Daouda 2024 moom nag dañoo gis ne ki yor directrice de campagne am mhm. dafa rek daal di tekki nombal tànkam mu nekk lu doy waar ci biir campagne bi mhm. dañ ci ànd ak Pape Kadiali Badji et puis revenir sur le plateau mbir mu metti lool moo daal di dal coalition président Daouda 2024 ndaxte kii di directrice nationale bu campagne am daal di na démissionné bàyyi lépp. xamal opinion nationale et internationale. que maître du candidat Daouda Ndiaye démissionné na bés ni tey te def effet immédiat. du continuer ci caaxaan ci yëfu tàppale du continuer ci yëfu foo. maître Germaine Sagna nekk it njiit régional bu mouvement action fii ci diwaanu Kolda. di ñu xamal li waral mu daal di tekki ndombo dànkam la ma gis fa ma ne woon doyul sama xel doyul sama xam-xam doyul sama am-am mën-mën doyu ko ma ne nag damay ñëw ba ci yéen xamal leen fa ngeen ma yónni woon gisuma fa lu fa jara toog ndax joxuñu ma sax ma liggéey lañ fa décider lépp. décision famille la ñun ngi jooy li fi xew mag ak ñuy gisaat ay mag ak di ñëw ñu bëgg ànd ak ñoom duñ ko nangu. ci fàttali décision bi ni mel ñetti cordination départementale yi nekk fii ci région bu Kolda te ñu doon amal ab assemblée générale bu crise daal nañ ko nangu waaye moom soxna Sile di xamle ni donte daal dina tekki ndombo tàkkam ci poste le mi ngi woy di nekk ci mouvement bi di action loole la maître Germaine Sagna daal di xamle. xamante ne dal na ci coalition bi muy euh, directrice de campagne bi tekki nombal tànkam mhm. et euh, li mu avancé bokk na ci nee na mbirub famille la nemmeeku ci biir coalition bi te itam ay caaxaan képp la fa gis looloo tax nag mu daal di bàyyi mu bàyyi nag en plein euh, ci li nga xamante ne moom moo di ci campagne bi mhm. donc loolu bokk na ci li xew ci biir coalition boobu mais également beneen coalition boo xamante ne ne fi toll nii naam demuñu ci lile di élection yi mais ñoom fi mu toll nii ñëpp leen di courtiser ñëpp bëgg ànd ak ñoom toll nii defaguñu seen choix ci kenn parce que nag li ñu gisagul dalagul seen xel muy coalition bu gëm sa bopp bi nga xamante ne ne kile di euh, Astou Sakho bokk ci euh, bile coalition mais également yor mouvement om yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci lu nu mel lan moo tax ba tey defaguñu seen choix ñu seetaan ko avec la complicité de la régie et puis revenir déglu rek euh, suñu avis kilifa voilà dañu am kilifa boo xamante ne moom la ñuy déglu donc moom daal lañ def carte boo xamante ne ñu ma xool naka la ñuy war a si jógee décidé guñu puisque élection yi ba tey dara leeragul donc euh, décidé guñu ku ñu war a soutenir tous les jours que jëfee candidat yi ñoo ngi ñuy o bu ñu soutenir leen mais bon nee nañ leen daal li euh, décidé guñu dañuy xaar tuuti def yi gën leer suñu bopp instant bi nii rien n'est certain parce que ga yaa ngi doon wax ne peut recours bi ñu dugal Cour suprême mën na am mu am njeexital donc yooyu daal yooyu ñuy xaar bu Cour suprême tontu ak yooyu ba ñu xam ne ni daal fi ñu ne nii daal moom le 24 mars bi ñii dañ dem vote ji bu soobee bu soobee yàlla boobaa dinañ jël euh, suñu matuwaay boobaa aussi li leen dañuy déglu comme moom la ñu doon ba yegg si tuuti rek. moo ngi noonu xadi ñu dégg nag li nga xamante ne moom itam daal dina ko wax concernant seen position donc nag ñu ngi xaar fu wànnenti ñoom itam di mu jékki gëtam ndax kan la ñuy ban coalition la ñuy àndal ci présidentielle yi donc loolu nag instant bi ñu ngi xaax peut-être fii ak semaine prochaine dinañ ci am lu leer peut-être terminé euh, ci euh, waa APR APR nag tey ñu gis ne le président de la République daal dina euh, confirmer qu'il est di Amadou Ba mais confirmer boo xamante ne itam naam dafa jàpp ne daf koo mm-hmm. trahison boobee nag ba tey waxul exactement lan la mais nag wax na troupe yi ñu daal di dem ci terrain bi jàppale seen candidat boobu di Amadou baax mhm. donc bokk na ci li gënoon fës. alors euh, foofu sax bëgg naa ci am euh, gis-gisu maître euh, mais balaa may ñëw ci moom balaa ñun ñëpp sax ñuy ñuy ñëw ond ak moom ci ci waxtaan wi ma tourné wu vers oustaz bu ko defee ñu dalalaale nabiyan yi sang-sang yi. sallallahu alayhi wa sallam saaxibi naasiril xaqi bil xaqi talaatil xaqi bil xaqi ilal xaqi minal xaqi xaqu xaqaaiqin wal xaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa saxbihi wa man tabial huda bi hëddiyin ila yowmi diini nuunaani nuunaani lam yaktubuhuma xalamun fi kulli nuunin min annuunayni aynayni aynaani aynaani lam yaktubuhuma xalamun fi kulli aynin min al aynayni nuunaani maa ngi laa nuyu di la ziyaara bu baax a baax tabaarakallaahu xadi kolonel nuyu la nuyu ñi nga xamante ni ñi ngi ci plateau bi ñëpp ku mel ni ah, comme ci moom la ñu commencé mama borom teraanga yi moom itam ko moo yor yi nuyu ko ziyaar ko ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax Fatou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ñaanal yàlla yokk sa teraanga ak sa sutura sa mbaax nuyu Mouhamed Diop la missionnaire maa ngi laa ziyaar bu baax a baax Fatima nuyu naa la ziar la yow itam kazalika nuyu na fi jéey sama doom di mhm. ziar ñëpp doogay daanale nag ci maître mi nga xam ne moom nga invité tey di sunu xarit di sunu sopp ñaan yàlla ñu ngi doog a door mhm. yàlla nay neex bés bu nu jëm ñu doxal mu nga ko euh, oustaz donc ci kanam incha allah daañu ànd ak moom ak euh, ñi mu àndal alors euh, maître Fatimata Diop dafa ñëw léegi ci coow bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku biir bennoo mu mel ni que président Macky fan yi yëpp dafa am ay regret par rapport à choix bi mu def ci ci Amadou Ba waaye tey Fatima wax na ko mu mel ni itam mu ngi mobiliser waat ay troubam ngir ñu nekk ginnaaw ce même Amadou Ba tey ban analyse ngay def ci loolu Euh, est-ce que war naa ci def analyse parce que man bëgguma spéculation suma rab yi loolay bañ <laughs> Sénégal léegi dañuy toog war a xam président lu ne ci boppam wala Bougane war El Hadj Diouf lu war a ne ci boppam ñeme yàlla nag naan président lii la bëgg a def ko ko ndax daf ko bëgg a changer ndax daf ko bëgg a remplacer daf koo bàyyi pour le moment yàlla rek a xam man je suis pas dans le secret day dieux chaque fois ñu ne day bàyyi Amadou Ba après ñu ne confirmé na Amadou Ba finalement dañoo bàyyi ba ba gis li ñu yaakaar ne moo war a am bis bu ko daqee wala bëggatu ko bu wax ko mais tant moom la fi teg pour ñun xëy na moom la fi teg pourquoi ñu bëgg indi keneen bu dee waxul keneen waaw doo bàyyi pël bi moom doo bàyyi ba wëlis nga xam ne muy wëlis. du dëgg. donc doo ci def benn analyse. d'accord alors euh, ñu ñu dugg ci waxtaan wi Fatou Abdou bàyyi naa la ak invité bi. voilà maître euh, ñu xadi xadi am na fa mu dugg peut-être que loolu yëpp ci élection yi la et ci noonu la ñuy waxee ci élection présidentielle yi nga xam ne ci la ñu nekk mais li ci mujj di actualité mooy la Cour suprême bi nga xamante ne euh, dana rendre sa décision en audience spéciale en audience publique plutôt aljuma euh, recours boobu nga xamante ne le Front démocratique pour une élection inclusive dem na ko yóbbu conseil constitutionnel ban jàngat bu njëkk nga ci am d'abord dans la forme surtout dans le dafa nekk loo xam ne yoon la dans le fond ndax bu fekkee ni dañ laa lor ci wolof mooy lor mooy ñu léser la say yelleef ñu foqati ko nga ëppale ñu bëri ñu jàll di ngan na nganalu te amuñu tuus yow nga am ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon ñooñu jàll lañu am ñu sàcc la loolu mooy spolier yi ñuy wax mooy ñun ñi nga xam ne dañoo sàcc xam naa buggaan sax ci la bokk bokkoo dañu dee moom it kenn xamul nu ñu def ba génne ko ci te woo na leen ne am na ñoo xam ni Sénégal xam nañ ni seen jàll jaaxal na leen fu ñu retenir ni Bouga du bokk El Hadj du bokk te ñooñu au moins xam nañ lañ ci terrain bi Bouga ak El ak ñeneen ñu téye ñu kenn xamul jógee ci kenn xamul fu ñu jógee xamuñ fu ñu négocier ba am. mais mais pourquoi nga tuddee ko négocier jàppoon na ñoom dañu am parrain. waaw parce que man bu bu dee dama am parrainage. ma dem ma bàtt fa si ginnaaw kee dugg ñu ne ma gaal wàññeeku bala muy lëndëm balaa gaynde yi ñëw tëdd ci tali bi boof. bu boobaa da ngay fay sa lumière gaare sa oto parce que doo boo boo daawalee jib gaynde ba pare taal sa lumière da lay song gajee risque yooyu yëpp ci parrainage du Kolda du Tambacounda du Koungheul du Nioro du Kaffrine du Kaolack du Patar du mbeel la kajaw du njóobeen taaleen du Fatick moo leen limal ay gé nu ba def Sénégal ban am lu mat au moins lu ba trois cent et quelques mille parrainage mais mënu dugal yëpp dañu naan da ngay dugal at quarante quatre mille trois cent et cinquante huit mille ma dugal cinquante cinq mille cinq cent soixante yoo xam ne dara boru ci am zéro doublon interne ñu ne ma am nga doublon externe yoo xam ne am na ñu la pare na pare na keneen lu ma ci mën lu ma ci doon lañ ma doon laaj joxe naa ko am na koo xam ne xëy na yónnee na ay millions wala mu def sama ginnaaw ñu def wala yónnee ko parrainage Dakar sax mu jënd ay carte d'identité wala ay ki remplir fekk yow defaroon nañ la parrainage ba pare yow yaa dégg ci terrain bi ñu def tirage au sort li may amul ci monde bi fii ba Australie fii ba Moyen-Orient fii ba Singapour amul dëkk bu am li Sénégal yëfu dof muy élection loterie mooy lan tirage au sort ñëpp di espérer dem ci benn sëriñ mu war la ñaanal pour nga nekk ci kanam nga teel a jàll ndax boo teerul jàll ku la jiitu boo amee li nga am da ngay toog amul ci monde bi. kon d'accord nga ci naan le processus a dof même pas biaisé dañoo def yëfu dof ma nekk dof bu njëkk bi man mi nangoo def yëfu dof <laughs> j'étais idiot on a été idiot. vous ndax kenn ci yéen xam na ni on a accepté l'idiotie dama ni la. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ñun ñoo def suñu yoonu doof ñu nax ñoo man dama ne dañu liggéeyoon parce que bu ñu naan loterie dafa war a am lu toll fal ci réew ci loterie. mën naa loterie bi kii Sénégal yi bëggoon a fal bu jàllul ci loterie bi ji fal keneen ko xam ni Sénégal yi bëgguñu ko est-ce que loolu yoon la. tax ngeen nangu ko. moo tax dañoo dof dañoo pikir dof xëy na bu dee bu nekkoon ay nit ñaay ndax dañ ne ci benn dialogue génn fu ay affaire loterie nit ñuy defu ci attention ni treize députés treize députés yi est-ce que am na doublon élus locaux yi est que am na doublon xam nga treize députés dafa yomb moom la Khalifa Sall def Karim Wade moom la def Sonko moom la def Habib moom la def ñoom euh, jëpp loolu lañ def Amadou Ba dem élu la koy maire yi xam nga maire yi aussi amul doublon maire Dakar euh, mënul am ñaari maire Dakar benn benn Barthélémy Dias bi nekk boo ko dugalee kenn mënul dugal Barthélémy Dias bi xam ne moo gën a metti ay centaine de million ngay dépense dëkkoo dëkk nga dugg foofu ñu pare di la nga yóbbaale sa kay dem di ko def ñaari weer nga tëj sa cabinet avocat. parrainage say jabar say doom duñ la gis nga xoj ci àll bi dugg rek ba ay trois heures de matin ngay tëdd nga ñëw joxe ñu ne am na ko fa jaar sa ginnaaw dañ ma koy wax de li ma bëgg a jógee Tambacounda wax ma ka a dem ak ka yónnee ay millions. am ay baadoo la yu la prene woon xaalis ndeysaan seytaane bi. yow kan moo jaar sa ginnaaw. non da euh, du kenn jaar sa dafa dañu ma dañu ma man kenn li ma am naa li ma am ba pare. mais jaam ñi dem ñu pare de leen ñooñu xaalis lañ bëgg. du dañuy pare dañuy élargi ji waaye nit ñoo joxe ay millions ñu pare da ko ñoom it ah, man man léegi ban ban faute laa def. benn maintenant maître dama bëgg ñu ne li tax. ni ñu biaisé ni ñu yàqee processus kon bu fekkee ne ñun ci conditions yi la ñu éliminé ak ñeen ñoo xam ne seen clé lañ xoolul ak man même même à part doublon yi dañ nañ ma am nga six mille et yoo xam ni bokk ci fichier bi alors que ñu ngi ci bi xëy na ñoom beneen fichier ñu amoon yooyu yëpp ay rëq-rëq la non identifié au fichier électoral six mille li ma déposé cinquante cinq mille cinq cent soixante dix au lieu de quarante quatre mille xam nga defe naa onze mille fukki junni ak benn onze mille cent li laa yokk ci li ñu ma laaj ni xanaa nag kenn du may limité mm-hmm. ku ñu laaj quarante mille nga dugal cinquante cinq mille cinq cent soixante dix barke alxuraan ak weeru koor bi ñu la am nga six mille non identifié officier et huit mille cinq cent doublons malgré tout mu dese 3000 dégg nga El Hadj ay 3000 kala la la dese ñenn ñi ay 13000 la ñu ñii 15000 même Rose Wardini 31000 la ñu laaj te am na ko après man bi ñu def la 3000 rek may ne waat 8500 pour remplacer doublon yi kuy laaj 3000 nga déposé 8500 yu baax ñu ne waaye am na 6000 yoo nurale waat kaay 8500 yi ngay di. six mille et quelques yi am nañu ko am kon léegi deux mille et quelques am boo ko ci yokkee man cinq cent moo ma dese woon pour ma am li laaj li ñu ma téq téq yëpp bu ñu repêché may nekk premier ndax kenn moo fi moo dem ba quarante trois mille neuf cent yooyu mooy élage Hadj moo la ko li koy téq di téq kon man a war naa def recours comme ñeneen ñi war a def ndax ñun kenn li may wax kenn kalewuñu système bu dof ak ay fichier bu ñu maîtriser wul ak du ñu la woon doublon yi ñan ñi kan nga bokk ay doublon loolu yëpp dañ ko war a leeral donc élection dañ ko war a reprendre mais bu ñu demee nag léegi nag ba am occasion bu ñu may loolu mooy forme bi yoon moo ni élection présidentielle code électoral bu ne campagne électorale bi ñetti ay bés la war a nekk muy ñaar fukki fan ak benn xanaa umpalewu leen ni dañoo en droit la hiérarchie des normes que assemblée nationale loi yi muy voté ñoo ëpp doole décret président yi di jël ndax assemblée moo ëpp doole président de la république ñu bëri xamuñ loolu président décret lay jël assemblée loi lay voté la loi est supérieure au décret selon la hiérarchie des normes kon décret bu respecté loi dañ koy xotti décret bu bu bu jalgatee loi décret boobu amatul. boo ko yóbbee ci yoon yoon dalay jox dëgg kon. élection yi de. bu am le 24 élection du ce que yéen vous avez intérêt à agir parce que le collectif le Front démocratique pour une élection inclusive kenn du ci candidat. waxuñ candidat yi. les douze jours. candidat yi la ñu ko defal non non non citoyen bu jóg. citoyen yi yaakaar loi bi dañ ko wàcc. loi la loi est impersonnelle. oui générale et générale. Mm-hmm. fu ñu ko euh, fu ñu ko bëggee toroxalee la loi. comme ñun ñëpp ci bokk yem mën nañ koo aar ki autorité bi respecté wu loi bi ku ne mën na attaquer décision pour parce que décret boobu sénégalais yi voté ji dañ ciy tënku est-ce que dañuy bàyyi ba le vingt six ji. kon loolu tontu la ñuy wax ne cour suprême. Euh, mënut jël yenn décision bi nga xam ne dafay suspendre le processus. ankay mën na ko waaw waaw li tax ma wax la loolu. bu ñu fixé benn date ni le 24 la ñëpp la concerné ndax ci ngay wote ji boo nee man non non non le 23 lay wote eh, kat moo koy jël boo nee man non non non man daal le 26 laa yeewu dem wote ji yow yow bal bureau la vote ngay dem kon tu es ndax moo loolu moo lay forcé nga ne wote ji jour boobu te da ngaa bëgg tànn président te yaa ñu ngi la jox ordre boo xam ni baaxul te sénégalais nga. mais mais jurisprudence Ousmane Sonko en 2016 bi mu demee yóbbu Cour suprême euh, pur que ñu neenal convocation du corps électoral Cour suprême daf kontoon ne ko c' est un acte de gouvernement. bii est ce que di convocation. léegi waaw mais c' un décret. mais non est ce que. ah bon du damay laaj maître est ce que bii du ngeen am réponse su ce sont des actes préparatoires d' une élection ñu ñu ñu bañal leen ko. comme li ngeen yow léegi juriste nga. damay laajte yow yaa juriste bi. da nga nga dañuy wax la. da ngaa wax ay faux juriste ak ay naafiq yu la informé te lii la taxaw. dañuy réeréer jurisprudence kay amu fi euh, amul lu ñu ci lool. jurisprudence mooy waaw ndax bii yoon. boo tax ma doon problème violation des délais fixés par la loi loolu kii moom convocation correcta bi la la soo ko bañoon waaye doon ay délais yu violé bi ay délais la soo ko daa mën yu attaqué dafa am délais yu baaxutoon yoo xam ne. boobu décret la la forme bii du décret. oui moo tax décret boobu. ñaar yëpp décret la. acte de gouvernement bi daan man may tànn yàllaa ko may ak loi bi pour mu fixer date Sonko moom dañu fa dof lay def pour songu ko rek alors que décret bi lépp la mais bii du acte de bi nga xam ni loolu coobare président président bu wàccee àndam cest à soo ko waxul fenn fu président violer ay délai wala loi bi kon il faut que comparaison n'est pas raison bi bi président dañ ko tënk ci ne ko ñetti semaine la respecté wu ko bu Sonko ba neema lan la président respecté wul. lan la respecté ay caaxaan na ni Sonko yooyu lay wax. dof dañu am xam-xam duñu ay cuune loi bi dafa ne ñetti ñetti semaine. mais maître euh, bu bu fekkee euh, euh, douze jours campagne yi dérangé wul dix neuf candidats yi en quoi war a mën a déranger ñeneen ñi ñi demoon. jàngu droit moo <laughs> moo tax may laaj ko jàng droit. nul n'est censé ignorer la loi. mais, wu leen la loi est au-dessus de tout. amul kenn ku am droit jalgati yoon. même bu dee ñi bëgg a def élection ñoom d'accord nañ ci. yoon moo leen tëgg ci moo leen mën. mais ci ban qualité ngeen di agir. ci laay wax nee naa la sénégalais bu jóg am nga droit attaqué décret boo xam ni du décret individuel boo xam ne dafa ne yow mii yow sa bopp deme naa la ministre yooyu moom man mënu ma ko attaqué mais loo xam ne réew mi yëpp la tënk yow ci nga da ngay wote ji citoyen boo xam ne am nga droit attaqué décret bi. ensuite. si am na ay juristes yu bari yoo xamante ne ñoom itam yëkkati nañ ay kàddu jëm ci euh, recours boobu jàpp nañ ne damay citer euh, PDS jàpp nañ ne PDS amuñu sañ-sañ dem attaque euh, li nga xamante ne moom moo di décret bi candidat yi nga xamante ne ñoom la ñu retenir ñoom ñoo am sañ-sañ dem def lu ñu. waaw Karim Wade attaqué na ko dinañ ko retenir. mais Karim Wade ci kii candidat yi ñu retenir ci 19 yi. kon yow pour yow 19 yi ñu war a attaqué. loolu la yenn juristes yi wax. ñooñu naa fekk lañ. nu nekkee naa fekk maître yi xam nga li gën a bon jàng droit ba pare nekk charlatan nekk maaman yooyu di jabaraan wala nga nekk koo xam ne nga far ba nëb kon kooku may bañ a tudd si mu ñëw leen fii ah, ñëwee di mel ni bébé li may dara du nekk dëgg ñu naan ko professeur tudd professeur du tous du sax professeur professeur mooy koo xam ne agrégé nga ba pare nekk titulaire de chaire mais moom du ci am assistant bu ñu naan professeur nangam bu ñu ñu nandoo ko ci benn parti pour mu jiite ko xam nga ñooñu ñooñu dañuy toj bopp nit ñi ñu mën leen wax droit daf fekk far la ñuy wax farandoo ñuy wax jàppale la ñuy wax. xam nga lu ma leen wax mais maître yow aussi da nga far parce que dafa am foo bokk. non ma nekk Benno Bokk Yaakaar nga a bokkaat élection yi bëgg nga ko jàpp Benno alaaj bi fa am indépendance waaye. waaw mais da nga am parti da far sa parti nga far bëgg nga tey ñu tëggaat ko nga dem élection. mais loolu laa wax est-ce que mënuñu interpréter say wax comme ni nga interpréter ñeneen ñi faruma hmm. man dama bokk sama parti xanaa kay nag ma yow yow kay yow kay nga sa xel mi nalaw nalaw bu ma faral sama parti faral jàmm lay faral mais ci dëgg laa koy teg man du ma dof boo xam ni. man man yàlla may na ma jàng droit donc man bu fekkee nii sama parti tànn na ma samay militant mobilisé. dans toutes les région dans tous les département di ma teeru woo naa ko ñeen na ay keroog bi ma ñëwee fi keroog tribune présidentielle mbooloo man dama wane élection laa nekkoon ñi ma gis di télé bi fan yi ak li ma wane man campagne pare naa mel ni man maa man maa nekkoon camp électoral ñoo ngi nekk ñu nekk entraînement di entraînement kenn wane wu fi mbooloo kenn def tournée ci àll bi la waxuma nga jël benn meeting am nga xaalis parce que cotiser nañu la fu ne nga def remobilisation Ndiaga Ndiaye def méga meeting. def ko Parcelles Assainies waa Sédhiou ñëw waa waa Kolda ñëw waa Ziguinchor ñëw ah, waa Dakar waa waa Bambey waa Nioro ñëwal la nga fay ñoo ñëpp bis yi ñëw ñu fay ni ñu ñu dugg ñëw toog ñu ne xooleen moo de monde waaye moom mooy diw diw mooy moom. <laughs> léegi maître vendredi bu leen dox ci maay. vendredi lan ngeen di xaar. koo xam ni du am 5 pour cent muy seen jomaay moom du dara. Ah je te le jure fu ma dem ci àll bi mais fan nga teg ne du am 5 pour cent damaa dem ci àll ah. le terrain a dit xamuñu jomaay. ah oui. Sonko sax. ban alxuraan wala nga dem ci àll bi. ban dëkk maa ngi nuyu Top. jàngee suuf. ba boo demee Ndiobène Tallène El Hadj Diouf. mais Ndiobène Tallene war nañoo xam war nañoo xam xamuñu ko. Ndiobène Tallene xamuñu Sonko. Ndiobène fu nekk Ndiobène Tallene fu nekk. non yow kay laa koy laaj. <laughs> dans le Saloum. ba ba demee Njarni. ba ba demee Ndofane xamuñu. xamuñu ma xamuñu jomaay. ñu ne maître yow bul soxna yow mën nga bañ a campagne. yow la ñu gis yow kenn nga taxaw di xeexal réew dirigeant dirigeant intellectuel tappet yi benn xale ñëw ak ay booyam ñu saaga nit ñi napp nit ñi ñëpp ñu seen geen nga taxu nekk leen défenseur de la république seul kon tous les bandits les bañ taal sa kër ñiy saaga journaliste yi xam ngeen ci dara ku wax lu neex seen yàlla boobu ñu saaga la presse bi yéen bu neel kenn mosu leen de saaga ci yéen ku waxul lu neex waa mais aujourd'hui maître que vous. kon kon ñun bu ñu defee suñu recours am ci droit xam nga droit lu mu wax droit raay la raay loi ku wàcc raay bi da nga déraillé. xam nga train bi daw ci raay xam nga kooku moom bokkatul noonu la loi mel boo ko wàccee déraillé nga kon boo yow yow président de la république. boo signé décret boo xam ni yow da ngaa wàcc yoon comme ni ko waxee groupe boobu ñu ci bëri ay opportuniste lañ naan noo neex nañu mën nañoo dem yoon faalewul ay état d'âme lu neex ak lu naqari kandaay intéressé wul yoon yoon moom waroo ko wàcc. mais maître attention ñi ngay tuddee opportuniste peut-être le futur président ci ñoom la nekk. na nga ko def président bi nekk opportuniste président mu nekk sax criminel président mu nekk bandi. président mën a nekk Sobman mais on a vu président yu nekk Hitler Hitler gis nañ fi le chancelier Hitler gis nañ fi ay ay leaders yu mag ay Sékou Touré ak ñeneen ñu accusé leen dañu doon rey nit am dafi peuple yi ñoo war parce que bu ñu yeewuwul nit dana ñëw ci la goo pouvoir bi di nappaate di taal ku deesee yaa juraat nañu rey Macky Sall def ko ay morceau comme Samuel do xale yi dem leen gatsa gatsa Macky Sall dinaa ko rey wala mu rey ma kooku mérite na président te yaa ngi wax de président président façon yooyu mën na nekk moo tax bi ma demee ci àll bi ñu ne ma bu lay sax sonn ñoo ñuy tudd foofu ci réseaux sociaux yi ñun amuñ amuñ ay ay tablette amuñu ay ordinateur amuñ téléphone portable bay xam ñooñu ñu ngeen ñuy wax ñun ku ñu xam mooy rajo yi ñuy jàpp yaa fa nekk télé yi seetaan yow la ca waxal réew mi. est-ce que est-ce que cela suffit est-ce que cela suffit mais non non non kooku booy la man man man du man kilifa laa moom non du politique du dara. non maître bul nekk dara ku ci nekk plus force la. plus plus fort bu jël troisième ci élection présidentielle. bi. plus fort coalition la coalition. coalition ñoom ñaan bi nekk euh, banque boobu si bàyyi ko léegi ñoo ngi dem coalition Karim Wade bokkul Khalifa Sall bokkul en 2019 électorat Karim Wade ak Khalifa Sall dem wateel Sonko mi amoon plus forest en 2017 14 mois après un an rek après rek mu am 15 ndax dañu ñi bokkul parce que tax yooyu Khalifa xewoon nag ak ah, Karim wax dëgg yàlla. mais maître mais maître les temps bi Karim amoon na PDS amoon groupe parlementaire en 2017. PDS amoon groupe parlementaire en 2017. PDS amoon groupe parlementaire en 2017. très bien. Euh, mais. ça va ñooñu. plus force la amoon assemblée nationale. alors on passe à Nafi yow ñëw nga ci assemblée nationale. Ah! moo tax kii bi ma laajee ndax ndax euh, Sonko nangam. seen poids politique ma ne suñu poids politique dama ah liggéey Sénégal waaye Sonko. mais maître lan liggéey Sénégal. lan la ma sa liggéey Sénégal ma <laughs> parado man a yow ku ci wooyee ñun ñaar l'homme du 23 juin ou la femme du 23 juin man a yow. yow yaay l'homme ah, kon liggéey Sénégal ba doy na sëkk sax. ku ci yooyu ba yow député du peuple. <laughs> da nga da nga doon jaar jaar mais ci nga basé wu pour. l'ancien dirigeant du booba étudiant de Dakar. non man kenn maa ci ma sa nekk à la fois. membre du conseil d'administration du COUD élu par toute l'université membre de l'assemblée de l'université avec Seydou Mandadissi recteur ensuite Souleymane Niang feu Souleymane Niang recteur pourtant boobu ñi wax ay Amadou Ba ay Abdoulaye Daouda ay Macky Sall ñu ngi université j'étais leur chef j'étais leur dirigeant ku ñooñu ngay wax ndax bañ nekk université saint ma sañ diriger dara dara lu mooy bu nit ñi di grève sax ñu sol seen yu gàtt yooyu affaire ibaado yooyu léegi naa genre pantalon yu gàtt yooyu la ñu yore naan ñi nañuy taxal ak ñi ñuy aversif dama ni jaar-jaar da nga koy am man dama dirigé jaraaf de Dakar le plus grand club de football dama lay woon di da ngay am jaar-jaar ci député ba may nekk ministre ma xale ba ma ngay jàgg enaan d'accord léegi maître mhm. au delà de tout ça seen morom oui comme que nekkatoo léegi ne bokkatoo ci euh, ñi dem élection du ma seen morom mais coalition benn Bokk Yaakaar nga bokk te xadi mi ngi koy mi ngi koy tàmbali léegi ci euh, ba mu lay laaj nekk na coalition bu nga xam ne euh, ki ñu tànn aujourd'hui dafa wét lool sur le plan politique ak jàppale parce que ñu ngi dem vers une élection naka nga jàngat élection waaw ah, mais non juste jusqu'à présent ñun ñun daal jusqu'à présent ñun le 24 mars lañ jàpp mais mais mais uñ foofu Cour suprême mais sama laaj mooy est-ce que est-ce que aujourd'hui Amadou Ba wiitul ak la coalition Benno Bokk Yaakaar sooy jàngat ci ni mu demee actuellement man daal li ma xam sama bopp laa xam li ma xam mooy ñun ñaar maag Amadou sama xarit la bon sañoon it mën na nekk président yéene naa ko ko kon dama ko yéene sama bopp bu ma jàllul mën na jàll wala bu Ablaye ñoom ñaar ñu ñoo bokk benn non non dama jël wax la dama jàll noonu rek mais Amadou mën na ko dégg bu mën na ko rek El Hadj Diouf ñëpp benn lañ bokk. c'est le candidat de la ma rek donc entre donc entre euh, Boy Diomaye euh, Déthié Fall Habib Sy Cheikh Tidiane ñoom ñu ngi nekk Yewwi la ko Yewwi ñoom am nañ droit am candidat yu bëri waaye ben amul droit am candidat yu bëri. très bien ma mais moom dafa bëggoon bu ndaw rek. Uh-huh. bañ nekkee salle des banquets présidence de la république Macky Sall convoqué tout le Benno mu ne man tànn na Amadou Ba ma jël parole devant président ma ne président. tànn nga Amadou Ba gars yi tàccu ñoom ñëpp man kenn ah, amul ñaar amul ñett man kenn ma ne président je maintiens ma candidature expliquer encore les raisons ñu yuuxoo ma devant président à peu ay cinq personnes sur trois cents mais ay naa fu am na fu ne président ne mais El am na droit wax li mu xalaat lu ngeen koy yuuxoo yéen a ko tooñ parce que bi ñu ma waxee loolu dama leen dama leen wax lu wax yu ne leen ay naafeq ngeen seetaan yu bon ngeen tekkiwu leen dara. devant le président. devant le président du ngeen parce que dama leen saaga man leen yéen xanaa mu président ngeen mën a neexalee président mais ki defar président Sénégal mooy El Hadj Diouf bu tàngee jër jër jër réew mi baax maay taxaw maay nekk général colonel. bu dëkk bi tàng ministre yeeg DG yi nëbbatu ñooñu président jox teranga man maa yore sama teranga boobu nekk sama avocat bopp sa nekk privé man maa jël risque dem ñi jox teranga yi ba ñu am ay millions. Eh, eh, am ay oto eh, kenn du défendre réew mi kenn du défendre Macky Sall mais mu ñu en groupe. ñu toog kon demande président ku nekk di jaay président li nga wax kay kër Amadou Bala d'accord nañ ci président yoo rek noonu la ma président sa parti yow lañ gën a bëgg. waaye ma ne sama parti sama militant man lañ gën a bëgg te bu ñu sañoon man seen leader. Uh-huh. ma nekk président un parti dafa war a am ambition pour jël réew. c'est clair de parti boo xam ne da ngay jàppale rek euh, benn mouvement de soutien. Uh-huh. c'est clair alors euh, maître dama lay dama lay bàyyi nga souffler un peu xam nga euh, dañu am ay nga ci plateau bi comme ni ko maman Diallo annoncé tout à l'heure donc maman sûrement yaa ngi doon lire commentaire yi ma bàyyi la nga nga joxe tuuti xéwal. voilà Khady donc euh, mun nañu daal di euh, commencer joxe ci li nga xamante ni mooy xéwal yi mais balaa loolu bëgg naa remercier suñu ay euh, partenaires yi nga xamante ni ñoo ñu jàppale tey ku ci mel ni Orange. Mhm. Nescafé Bridel Ecobank la banque panafricaine Sénégindia Canal Plus Presea bi nga xamante ne mu ngi nii bari na ay saveur lor bari na ay saveur autant pour moi di mhm. remercier aussi waa Beko Sedima Lama boutique bijouterie la solution waaye du ñuy fàtte benn yoon tamit Matidi mi nga xamante xamante ne euh, la bu spécialisée dans la fabrication de montres de sacs à main et maroquinerie euh, de luxe donc euh, Mohamed Diop montre bi mu takk waa Matidi la man tamit montre bi ma takk nii Matidi ñooñu ko jox donc rafet na lool am na pour góor waaye am na tamit pour jigéen waaye tamit du ñu fàtte benn yoon sac yi nga xamante ni rafet na lool moo nekk wetu Khady Colonel ak wetu Fatima Diop sac de luxe la yoo xamante ni fii Sénégal lañ ko defaree pour jigéen yi nga discipliné wu bëgg se euh, se faire démarquer pendant une cérémonie ou bien un rendez important donc nag saag yi ak montre yi bokk na ci xéwal yi nga xamante ni euh, dama koy ñëw maye léegi léegi nii mën ngeen dugg suñu page l'officiel Sen TV bu ko defee nag ngeen bàyyi seen ay numéro téléphone ak seen tour ngeen dal di réagir bu baax a baax ma daal di xool nag ñi nga xamante ni ñoo gën a euh, commenter ñi gën a partager ak aimer émission te bi ma daal leen jox ci xewal yi enveloppe bu 250 000 laa yor sama loxo léegi rek ngeen daal di may euh, jox benn appel ma xool ku may may enveloppe bu mille francs léegi léegi nii waaye saag yi dafay dem montre bi dafay dem euh, mën naa commencé joxe ci xéwal yi ci Facebook euh, live bi ku ci mel ni Fatou Fall moom mu ngi dëkk ba Kaffrine mu ngi bëggee bu baax émission Grand Plateau nee na na ko lool nee na émission bi yàññ na lool macha allah donc faatu Fall sa numéro téléphone nag mu ngi tàmbalee 78 637 85 ak li ci topp Fatou am nga fi benn enveloppe bu. vingt cinq mille francs donc bu ci kanamee léegi dinaa la ko yónnee par Orange Money vu que partenaire la su ma jógee ci euh, Fatou Fall ma daal di may euh, ndey Kumba Mbow. Ndeye Kumba Mbow tamit am nga fi benn enveloppe bu euh, vingt cinq mille francs yaa ko moom bu ci kanamee léegi ma daal la ko yónnee par Orange Money régie bu dee mën naa am benn appel rek ma xool ma xool ku ma mën a waxtaanal jox ko benn sàkku matidi benn montre wala ma jox ko ci enveloppe bu cent mille francs yi. bu dee am na appel rek nga daal ci ñëw euh, dinañ ci delluwaat léegi ci euh, voilà donc voilà maman dinaa ñëwaat si yow euh, léegi incha allah le temps que ñu xool kan la ñuy jël si ligne bi ñu ñu delluwaat vers l'invité Nafi Dieng kii depuis tout à l'heure avait une question oui man Khady fi ma bëggoon ñëw ak maître mooy à chaque fois on l'entend parler quand même comment il sillonne le Sénégal du nombre de parrainages qu'il a eu à avoir mais euh, on ne voit jamais personne ci membre euh, parti boobule di PTT aujourd'hui nga boo doon def sa bilan wu parti ci ci ci ban baromètre nga koy natt ak surtout sa compagnonnage ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Benno d'abord euh, mere naa presse sénégalaise yëpp yii laa njëkk mere. saa leen mere mooy nangu leen invité sama militant bu ngeen waxee ma ne ma envoyé leen benn militant ñu ne non mais yow lañ soxla sonn <laughs> benn yow yaa mën toj affaire yi benn yow lañ soxla yow la ñëpp di laaj mais ba kañ barke alxuraan ku wax TFM Sen TV 2 set 7 TV Walfadjri yow El Hadj Diouf ma ne mel ni ba da ngeen ma sonal yéen a ma xeex <laughs> ndax dañ naan sama sama sama avantage booy sama inconvénient. mais loolu yaa ngi war a liggéey sax. non nu ma koy liggéeyee. say conférence de presse ñu nga leen. s'il a un débat yow nga teg leen d'abord su ko defee presse bi xam leen dem vers eux. débat ba débat. boo amee sujet bu oh. parce que maître yow sujet ngay wax conférence de presse mooy sujet yu ci ëpp yoo xamante ne Ousmane Sonko dans l'affaire Adji Sarr point de presse ci yooyu ñu xam yow say say say ñi nga xamante ne ñoom nga àndal non non li ma la mën li ma la mën a mooy économique bu ma defee bu ma defee conférence de presse yow ñi nga àndal ak seen non dafa da nga def hors sujet dama ni la bu fekkee ni da ngay def conférence de presse yaa koy def kay lu yoonu lu yoonu yenn militants yi bu dee affaire Adji Sarr sama militant yi Adji Sarr hors sujet la sama militant war na def conférence de presse bu gisee souvent quand boo exposé woo c'est parce que robe avocat bi ngay sol ci benn benn wet mais rarement ñu gis maître ñëw sol robe politique bi waxtaan ci wàllu économie wàllu justice wala ci beneen point ñu xam ñan la àndal ba mën leen invité sur les plateaux non là aussi hors nga def man li ma wax ci politique moo ëpp gis nga ordre des avocats aw nañ ma fi ni ma yow chaque fois soo ko wax nga tontu ko te doo demandé autorisation bâtonnier man da ngeen def erreur man chef de parti may tontu chef de parti Pastef bay dox ci maayanu nit ñi mais dossier bi ji ma ko secret le secret de l' instruction du ko tudd parce que pour nga wax ci secret dossier il faut nga am autorisation du bâtonnier te man bu may wax comme Sonko daanaka yorewul laa mi ñëw mu rëy chaque jour mu wax. pour nax Sénégal yi fu waxee rek mu dóor day bàyyi ba minuit ñu ne soo ko s'adresser aux Sénégalais ñu ne 22h Sonko fera fera face à la presse am na wala amul. këram gaa yi ndax wuti këram am na wala amul bu paree bu paree ba pare ba def demee ba def communiqué demain je ferai une conférence de presse la mu tegoon ci ndax si mi xànqeelu nit ñi ma teggi ko billaay fu mu doxee ci maanu nit ñi warul dëgg ndax xam naa ne ci moom du wax dëgg jomb naa wax dëgg. maître lan nga ci gagné. merci jërëjëf c'est gentil jërëjëf. allez man Sonko intéressé wu sax parce que tekkiwul dara ci réew mi du dara amul doole ji ko joxo waaye dafay am ay pressam am dégg naa bi gise portable bi sax la jëkkër gi mooy envoyé VV dégg naa ONAS Money yi yenn journalistes yi. mu jënd leen corrompre leen. ci li ma dégg yan journaliste ci li ma dégg mais itamul man ñoo ko déggandoo ñun ñëpp ma ne Mohamed information boobu ñun ñëpp ko déggandoo. man je ne suis pas malhonnête Faradou ku neex nga malhonnête. ku neex nga xam ne li am na dégg ko nga nga nga fatt sa sa nopp ndax tàppet nga wala da ngaa far ba dof waaye ku nekk nit ñaay dégg nga Sénégal ñu ne Sonko ci portable bi ñun ñëpp ko déggandoo. da nga exploité nekk na yow journaliste yu bëri dana yónnee VV yeeg. loolu de man dama ko dégg comme ñoom Mohamed. ba tey ci dégg la yam. ci. dégg la yam. dégg lan. nee nga da ko dégg. comment jox ñu ma ko directement damay damay demee nag joxoon ma ko ma xool. je veux dire yow li li ngay wax lu bëri da ci teg sa bët. ni ngay waxee ni que ku ko ku ko ku ko confirmé wul dafa malhonnête mais du du malhonnête. te dañu ci dégg lañu ci yam information boobu am na fi. waxuma ne dëgg la de dama ne ku confirmé wul ni information boobu bi ñu ne ay portable am récupéré nañ ko ku ko confirmé wul ni loolu déggoon nañ wax boobu waxuma ne dëgg la dama ne wax bi comme neex na nga ne déggoo wax bi alors que da ngay fen d'accord mais maître. yaa ngi wax depuis tout à l'heure concernant euh, mbirum Ousmane Sonko wax nga ko wax également ci campagne bi mais maître euh, ci loi amnistie bi déggoon nañ la nga tudd ci ne d'accord ah, ci. voilà xam nga moom nee na ma léegi man du may dégg may wax lu may ci affaire tribunal ak yooyu. bi mhm. ma déggee amnistie bi immédiatement comment après sama biir kër am na wala amul. voilà ci ah. loolu laa jëm sax am na. moo tax ma ñëw ci loolu bu fekkee ne Macky Sall koo liggéey. ba mu naa def lii nañu wuti sëriñ bu gën a aay sëriñ bi ko liggéey ba mu def lii waxuma lool waaw loolu am na. wax néew ma lii moom musiba a génn ay rek nit ay bandi. voilà ci côté mais bu ko neexee mag yi moomu ma ko mënumaa dem di ko dóor. mais mën naa au lieu ma wax comme li mu waxee nii moom bu ma du ma def politique keroog sama parti suma bureau politique ñoo ma wër te présenté naa leen sax. Mhm. ñoo jàpp sama bureau politique moo toog keroog. table bi guddi bi sama biir kër foofu laa doon waxee léegi nii presse bi dimbaliwu ma dañ may xeex ndax nanguwuñ samay cadre samay ingénieur samay professeur d'université samay économiste samay philosophe samay entraîneur de football samay musicien d'accord maître revenir un peu d'accord maître parole yox sama tur d'accord maître revenir un peu ci loi bi élage bi yaay yow lañ soxla <laughs> démb maa ngi maa ngi maa ngi fanaan deux mhm. la matin d'accord alors que lundi 20h30 la sama vol Air France atterrir à Dakar ma wàcc Chérif Dia oo ma. ne ma maître dañ la bëggoon jël info matin suba TFM ma ne ko nu munul nekk dama sol mu ne ma il faut nga ñëw dañ la soxla nag wax a ba Morus. parce que vous êtes important dans ce pays maître. mais ñëwaat maître ci loi bi mais yow lañ soxla ma génn fa dama génn rek téléphone bi sonné kan la Astou Dione mu ne mais dañ la soxla 2STV plateau koor gi la ñu ubbi te yow lañ ko bëgg a ubbi. mu ne ko astu gisoo na maa sonn te man ñëw yeewu yàq samay nelaw ah, daal di ñëw euh, info info bu TFM euh, euh, soxna Naata Mbaye. avant bu doon coupé rek <laughs> que tu es important. dama pare même pas deux minutes Fara ne ma dama bëggoon na ñëw suba. ma ne ko mais tey tey dafa def deux émissions ci suba def naa ko ngoon gi maa ngi jëm deux des Fall bu may mu ne ma non ñu taal yow la choisir. ma ne ko bàyyil ba beneen mu ne ma non man yow la soxla mais bu waxoon ne envoyé ma quelqu'un d'autre sa biir parti ba envoyé la. mais grand plat bi ma envoyé Elisa Malo. wala Assane Kelle Fall wala. grand d'accord dégg nga. Uh-huh. waaw loolu laa ne fu ngeen waxee pourtant da nga fi ay perroquet ay ay ñu ñëw fii di défendre. ndox boobu seen bopp. waaw maître dellu si waat ci loi bi itam nag maître ay kilifa. waaw <laughs> ñenn ñi. Mhm. bëgguma sax wax. maître maître parce que vous êtes vraiment important pour ce pays euh, mais maître bu ñu ñëwaatee un ci loi bi am na on a vu voté nañ ko ba noppi am na ñoo xamante ne kenn deful recours ça veut dire que ñu bari dañoo ànd ci li nga xamante ne moo di loi bi te président war ko ah bien sûr bu fekkee amul recours te président war ko promulguer léegi yow dégg nañ la ci li nga xamante ne moom la ñu wax mais fi mu toll nii ci wàll woowu ndax amnistie bi léegi dafay effacer lépp lu jëm ci wàllu diffamation. je suis content soulever loolu. l'état amul recours. xam nga député yi bu ñu defee recours mën nañ ko annuler. oui. pourtant naa fekk yi yi nekk assemblée groupe naa fekk boobu taxaw ne du wote loi bi jël parole ay yoon yoon. opposé wu xam nga am nañ ñoom nombre bu doy sëkk pour attaquer loi bi pour dire que dañoo négocier ñoom ak Macky Sall ca kaw pour amnistie bi am. ñuy jaay naa fekk ak malhonnêteté taxaw naa ñoom d'accord ci amnistie bi. alors que bi ñu demee commission dañu def abstention. ku wax feeñ ba Birahim Seck forum civil. nee na votre position e ambiguë. ba mu leen waxee woon ñu xam ne ñëpp ñu ngi leen démasqué. ñu ne nañ voté contre. mais alors que dañoo def abstention di doon rek sax ñu voté ko ndax dañu d'accordoon ci ak ak nit ñëpp jëlee lépp lépp xam nañ ko parce que ñëpp gis nañ dégg nañ l'autre là Atepa Goudiaby ci RFI mu ne. ñu ngi négocier mais mag mais condition soo ko mooy nañ libéré xale yi jàpp yëpp ah, ah, ade baaxu ko man jomb naa fen de kon négociation am na xam nga loolu mooy xam ñu ngi jalo boo gisee ñu rus am ngàcce parce que ndeysaan wala dëgg dëgg rek bay mujj dañ ne woon ñoom du ñu mas a négocier ak Macky Sall ba xel ma Sall demee dialogue ba di négocier ñu dàq ko yi lan moo dialogue ñi nga xam ne ñoom dialogue la woon. ñu ne ñoom d' accord dañ ci concertation mel ni du benn mais ñi ñenn lañ yem ñii ba dina jëlee xale yu ndaw. avant loolu. xamuñ ko yàllaa ko xam. mais dañ bëgg a gëm ni ñoom bëgguñ amnistie bi. yow boo demee bay def grève de la faim ndax ragal prison ndax bëgg noos ba mu jaral la nga dee ba nit ñi di lay ñaan naan ay bul dee ay Sonko baal grève de la faim bi prison jaru ngay dee amoo ay kilifa yu bëri woon nañ ko. parce bi ne bi ne muy waaj a dee am na ñu am na ay appel di ko arrêté li am na wala amul chef religieux yi bëri yónnee nañu Sonko ñu ne ko yëpp ay dem boo ñu ne ko ba sëriñ bi nee na ko nan nan nan la arrêté bi am na wala amul. c'est vrai kon du ma fenn kuy fenn yaa yàlla la ak sa bàmmeel léegi bi loolu amee. ku ku ragal prison ba ni da ngay dee dee mu ragal prison ndax grève de la faim Sonko boobu de grève de la faim grève de la faim léegi mu dee ñu ngay waaj suul. loolu am fi say jabar toog ñàkk la fayda di ñaan ki nga ne woon dañ ko war a rey daggate ko ay morceau Macky Sall di ñaan jabara mu intervenir pour ñu bàyyi seen jëkkër ay eh waaye dimbale leen suñu jëkkër mu génn seen jabar di saali ndax bëgg nga génn prison ca laa waxee ni yéen jabaru Sonko yi xanaa xamoo leen ne kon Marième Faye Sall bi seen jëkkër bëggoon bëggoon a rey jëkkëram dakkate ko ay morceaux comme Samuel Doe loolu la waxoon de war a rey Macky sàll dakkate ko ay morceaux comme Samuel Doe pourtant ba mu ko waxee jëkkër ji ne nañu rey jëkkëru Marième rey président dakkate ko comme li def Samuel Doe bu ma ne damay fen mhm, est-ce que bi seen jëkkër waxee nañu war a rey jëkkëru Marième dakkate ko en morceau est-ce que tawat ngeen loolu jooytu ngeen loolu di ko bàyyi loolu muy waxati loolu da ngeen ci ànd tey nag seen jëkkër sax moom kenn bëggu koo rey kaso la nekk rek ngeen ñaan jabaru kenn bëggoo ñu rey ko jëkkëram jabaram ngeen ñëw ni ko ay mareem jigéen nga waxal sa jëkkër mu bàyyi sunu jëkkër ma ne yéen jigéen yéen weere ngeen yéen jabaru sonko yi loolu tax ma ne la bettuma biñ ne ñu ngi négocier ca kaw pour ñu génn. très bien na ko lu ne day la muy def ak la muy moo tax ne recours bi foofu lay terminer. Uh-huh. li tax ñu am député yoo xam ne bu ñu d'accordul ci amnistie bi mën nañ ko attaqué. wala Ndiaye mu ne ku wax feeñ ñoom wax bi doon wax naa non du ko nii di wax loolu ba ñu yéexal vote bi yëpp c'est de l'hypocrisie affaire lâcheté c'est de la parce que booba ñu ngi xam ni loolu lañ bëgg. Mm-hmm. ba pare ba pare ñoo ñëw ni du ñu wotee loi bi mel ni lu ñëw ko sookee woon. très bien dégg nga de. Uh-huh. dégg nga de léegi comme may ne ñu attaqué loi bi. d' accord wuñ ko moo tax ko wax fi seen attitude mooy ànd nañ ci ndax buñ ci àndatoon comme ñun niñ def dem cour suprême ndé ko décret bi ànd nañu ci. pour élection yi le 24 ñoom mënoon nañu loi bi amnistie comme bëgguñu ko xeex nañ ko assemblée faalewuñu dañ koy attaqué. très bien waaye dañ cee ànd ndax fi mu nekk ñoom ñëpp. mais amnistie bi moom xam naa liñ ci génn Sonko ak Bassirou Diomaye <laughs> ak band yi ñëw. loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw amnistie bi également liñ ci war a mën a wax bari na question yi ñu ci am bari na également. Euh, mais ce sera dinañ ci ñëw. Euh, ce sera tout à l'heure dañuy amal une courte pose rek pour jëli page pub bi euh, dellu siwaat ci plateau bi. Thank you. seen émission Grand émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd kook Orange Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarte Bridel nag piir bi ngeen taamu la banque panafricaine Sénégindia numéro un ci wàllum immobilier fépp ci Sénégal indil leen gam yaatu ci villa appartement au standing Lamine ca e. résidence Évoque ca Bourguiba ay parcelles viabilisées Millennium City ca Njaaxirat ak Tulip City ca Bambila Canal Plus dundu leen korgu sell ak chaîne yi gën Precia Beko bi leen indil gamme électroménager bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis dix ans ak Sedima bi leen indil poulet terral cent pour cent local cent pour cent sénégalais cent pour cent halal Lama boutique indil leen bazin Fusuneger cent pour cent coton bazin bu am brillance amul fenn motif pour góor ak jigéen la solution jigéen boo koy bégal la seetil la solution yu bees yi mu indi amul fenn Sen TV ak i partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Mubarak am nañu ko taamu suba teel am ñu taamu waxtu tàggat yaram jàkkaam tax na ñun ñëpp ñu taamu meew Bridel bàyyi ko ci meew nag piir bu raxul dara meew bi sénégalais yi taamu Bridel meew bi gën a neexal seen dund Bridel moo leen di ñaanal kooru jàmm defaral leen seen njaboot xëdd bu neex ak ndogu bu jéggi dayo bu ànd ak bànneex fii ci Beko suñu jumtukaay yépp lañuy saytu ci xew-xew yu mel nii lii itam bàyyi nañu ci xel lii tamit bu leen ci am xel ñaar lii moo tax ñuy saytu ngir ñu jëfandikoo ko nii def nañu suñu kéemtalaay kàttan ak saytu dëgër laay gi ngir dund bu amul benn coono ba Beko state of mind. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. nous connectant les uns aux autres un même objectif, pour créer et partager les opportunités pour grandir. travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. EcoBank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. émission Grand Plateau numéro un des émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd kook Orange Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarte Bridel meew nag pire bi ngeen taamu bi gën a neex la banque panafricaine Sénégindia numéro un ci wàllum immobilier fépp ci Sénégal indil leen gam bu yaatu ci villa appartement au standing Cheikh Lamine ca e. résidence Évoque ca Bourguiba parcelle viabilisée Millennium City ca Njaaxirat ak Tulip City ca Bambila Canal Plus dundu leen ak chaîne yi gën Precia Beko bi leen indil gamme électroménager bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis dix ans ak Sedima bi leen indil poulet terral cent pour cent local cent pour cent sénégalais cent pour cent halal Lama boutique indil leen bazin Fusuneger cent pour cent coton bazin bu am brillance bu amul fenn benn motif pour góor ak jigéen bijouterie la solution jigéen boo koy pégal la seetil or bijouterie la solution yu bees yi mu indi amul fenn senti vi ak i partenaire am ñoo leen di wax ramadan mubarak ngoog euh, chers téléspectateurs de retour ci seen euh, plateau euh, GP grand plateau ñu doore woon waxtaan wi nag ak suñu invité ci première partie bi muy maître élage Hadji comme noo leen ko gisee dañuy woy ci seconde partie bi daañu ñëw léegi continuer leen ngeen bind seen ay commentaires bàyyi ko ci page Facebook Sen TV l'officiel waaye itam ci YouTube bi ndax ñaar yëpp Maman Diallo incha allah dina ci dugg xool kan lay jox deux cent cinquante mille yi chaque match di ak xéwal nga xamante ne moom la tiim euh, gis ngeen ko ci kanamam euh, dinañ ci ñëw léegi incha allah mais en attendant dañuy dem ci seen rubrique ak ci réseaux sociaux on lu ci ak Nafissatou Dieye Nafi Adi lu xew ci réseaux sociaux yi alors li gën a fës ci réseaux sociaux yi diggante démb bi nga xamante ni pratiquement ci la plupart des musulmans moo marqué le premier jour de jeune même bu fekkente ne am na le lundi ñoo xamante ni euh, umoon nañu koor il faut dire que chaque année vivification yi dafay am fële ca Touba ca résidence Cheikhul Khadim euh, démb nag moo nekkoon euh, bës bu njëkk bi sëñ Muntaxa Mbàkke daal di koy teewe ñu bëri reprendre ko tey ci seen ay store yi démb sax ba tey parce que aujourd'hui ci deuxième jour bi la ñu toll ci ay ci seen ay store yi ak partout boo ko mën a woowee noonu ci plateforme digitale yi mën nañu xool les temps forts euh, de ces vivifications bu ñu dellusee ñu évaluer ci yeneen euh, information gisandoo xadi yi bokk ci yi nga xamante ne fës na torop euh, diggante démb ak tey euh, ci internet bi tout comme on a vu démb benn incident bu am fële ca euh, terre bi dafa am benn personne extérieure euh, bu activité yu terre bi boo xamante ne dafa daal di faqastalu euh, daal di rëcc ci gaaru Rufisque bi équipe d'intervention yëpp nañu daal di leen di mobiliser sur place afin que ñu assurer sécurité nit ñi prendre en charge ki nga xamante ni moom moo di blessé bi la vidéo nag daal di nañu koy gis partout aussi ci réseaux sociaux yi mu nekk une vidéo alerte pour peut-être alerte ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi allah ñi nga xamante ni pour la plupart du temps dañuy tourner tout autour euh, ci gaar yi il faut dire que dafa am ay euh, naka laa ko mën a waxee ay porox ndool yoo xamante ni boo euh, faqasaloo maara daytaani mën na cee fekk vidéo bi gis nañu ni nga xamante ni noonu la viralé et puis on communiqué wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa terre pour rek alerter encore les euh, population on parle aussi euh, ci réseaux sociaux yi euh, li nga xamante ni moom moo di réhabilitation définitive bu Ousmane Sonko ci loolee nga xamante ni moom moo di liste électorale yi alors info bi nag depuis démba moo nekk pratiquement ci une toile bi yëpp on nous dit que état wu Sénégal dafa daal di désisté wu ci pourvoi am contre décision bu Dakar daal di moo xam lu ñeel condamnation Ousmane Sonko par contumace liñ ci mën a jàpp rek mooy définitivement euh, loolu daal dinañu koy euh, anéantir boobu les condamnations pour diffamation étant couvertes par la loi d'amnistie e judiciaire Ousmane Sonko dafa daal de redevenir euh, vierge xadi colonel et puis gis nañu internet yu bari di ci yey yàbbi les internautes sont très friands de tout ce qui tourne actuellement autour de l'actualité euh, politique bala may continuer bëggoon naa ci laaj euh, maître son avis buy gis peut-être ci plateforme digitale yi comment les internautes sont friands de tout ce qui tourne autour de l'amnistie autour de de de de de autour des élections présidentielles parlez un peu plus fort euh, alors je disais euh, par rapport ak information bi nga xamante ni euh, moom laa joxe léegi mu ñeel la réhabilitation définitive de Ousmane Sonko sur les listes électorales dañu gis ni internet yi dañu ci friand bu baax a baax ñoom ñëpp ngi ci yey bi ci boobu le décision aujourd'hui yow en tant que juriste ban jàngat nga am ci loolu. est-ce que am naa jàngat lu may. dafa ñoo xam ne dañuy jéem a yóbbaale nit ñu daal ci seen dof ndax man fi ñuy gisee ñàkk xam-xam moo tax ñu gisee noonu te neex yóbbaale ndaxte biñ ne inscription am na amul cour suprême dina nañ ko juge Sabassy Faye Ziguinchor nee nañ ko dugalaat gars yi bañ cour suprême bañ Dakar dañ ko dugalaat ñu dem Cour suprême ba agence judiciaire bi ni léegi defe naa am na désistement d'accord mais conseil constitutionnel lan moo tax mu dax candidature Sonko waxul ay affaire liste électoral bokkul duggaat ci liste électorale tax ma dàq la sa ñàkk dugg ci liste électorale dafa ni ko cour suprême àtte na barki démb mooy njaay yaag maa mbay ñaa sa pourvoi bi nga defoon dàq nañ ko kon si mois yi la joxoon en appel day dem dafa baax ba léegi kon mënatoo bokk ci élection kon même bu ñu ko bindaatee ci liste mënul bokk élection <laughs> xam-xam baax na parce que cour suprême conseil constitutionnel bi muy rendre décision rejeté Sonko candidature am loolu la waxul ay nekku ci liste bi de ba maître suma xarit secrétaire d'Orly déposé dossier Sonko conseil conseil pour mu dàq dossier Sonko dafa ni atte nañ la ate bu jeex tàkk yaa ngi ma mbay fëgg la juróom benn weer kon mënoo bokk ci élection waxuñu ko nekkoo ci liste électorale yi ci affaire yi ci affaire yi aji saa la defoon am na contumace te ba may contumace booba xëy na wees na parce que conseil loolu intéressé ko woon pour moom tëj bi ñu ko tëj juróom benn weer rek loolu la yoon wax mënul bokk élection waxul mënul nekk liste électorale de mënuloo compétir. très bien ndax sa ndodd di tëdd fa. voilà alors kon bu ñuy tëb di fecc. Uh-huh. naan wéy Sonko am na nangam des na de. loolu bëree bëri. très bien on on <laughs> retourne à. ah ñu ñu bàyyi la nga euh, continuer. xadi mm-hmm. leneen loo xamante ni xam nga ay ndoxu ndoom rek xamuñ dara dañu yóbbaale rek. xam nga yóbbaale rek Sénégal ma yóbbaale. allez-y. yóbbaale na way bu ko yoon njëkk a na fi. Mhm. leneen loo xamante ne xadi annoncé nañ ko en grosse pompe aujourd'hui aussi mhm. euh, sur toutes les plateformes mhm. digitales euh, mu di la libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ni Madiambal Diagne moo ko daal di annoncé sur sa page X ñu gënoon ko xam ci Twitter muy wax ni dinañu génn prison tey ci mercredi 13 mars 2024 euh, wax ni njiitu réewum Sénégal dina promulguer loi bi ñeel wàllum amnistie bi nga xamante ni defagul l'objet d'un retour en incon inconstitutionnalité Fatou ah moo bi nag dafa gudd de il faut ñu revoir mooy gudd vas-y noonu la vas exactement alors euh, les internautes actuellement ñi ngi wéyandi di ci def ay taxaw seetlu xadi parce qu'on dit que qu'il fait actuellement 23 h et on n'est pas encore témoin de libération de ces deux euh, leaders politiques ak ci mën a jàpp rek lii bokk na ci info yi nga xamante ni fës na loolu ci toile bi tout comme les embouteillages d'hier et d'aujourd'hui les internautes en parlent on a vu beaucoup de captures beaucoup de vidéos yoo xamante ni euh, partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi certainement li mu euh, tombeek euh, début de semaine ba pare dégg du nekk di woo ne yow <laughs> dina yëkkati gën a yëkkati baat. Sénégalais yi nekk di eh, woo peut-être peut-être loolu moo tax na fi yokkal tuuti. parle doucement euh, xëy na lool moo tax xadi Colonel euh, li nga xamante ni moom moo di embouteillage yi ñu nemmeeku ko euh, dans Dakar et ses mais lu liñ ci mën a jàpp rek mooy internet yi ñu ngi koy kaas bu baax a baax am na ci sax ay blagues yoo xamante ni ñu ngi koy partagé am na benn bu ma ci liir waa ji nee na ñi ndogoogul mën nañu wax seen waa kër ñu yónnee leen seen xëdd ci tali bi parce que gëmuñ ne dinañu yegg seen yu mel noonu daal jamono ji euh, moo gën a fës ci internet bi bokk na ak Facebook ni muy changé xar kanam tout le temps euh, bu ñu duggee ci wàllum koor xale yi dañuy muuru musique naar dañuy déglu waaye tamit euh, dañuy defar defalante ay black yoo xamante ni vraiment dina leen permettre ñu dàq seen koor xanaa ak ñu tëjee ko de vidéos TikTok yu ndaw yoo xamante ni dina neexal guddi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan rapidement toog na fi. ayca Xadi li moo gënoon fës ci internet bi tey nga koy woowe actu réseaux sociaux bu subaa ñu dolli rek. incha allah incha allah en tout cas merci beaucoup euh, Nafi ñu euh, dem nag directement ci lu bari ñu ngi ko doon xaar oustaz ñu ñu bàyyi leen ngeen yëkkati. waaw ay ca mu ngi noonu tey ni ma koy waxee saa su nekk rek euh, képp ku nu dalal dañu naan diw la ñu dalal tey tey nag Moustapha Sogg la ñu dalal la missionnaire mu ne ko tey yëpp bokk ci njabootu Cheikh Seydi Mouhamadinil euh, Moustapha Sy Jamil waaye di bégal njabootu Seydi El Hadji Malick gépp ak njabootu Cheikhul Khadim gi te ne nag Moustapha bu jubee gaar faw mu korne ay ca nga ne bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliya وابنيهم السبتين أعلام العدا وبصحبي وابطابعين لهم فهم أن يبقى ننتبه ساداتنا أهل المكارم والندى yow yonent bi farrij humumal muslimina wa karbahum yaa daa an ñu bëgg sayyiduna muhammad ca kaamala saadu man rabbaawu tiflan وارضع وكان علي صقو انا نبغ سيدنا محمد فلم تلد النصال مسيلا يجيع بامر بامر الموقف صليا يا الهي وديا ابدا محمدا المختار في القدم محمدنا المختار في القدم دفلني صليا يا إلهي وديا أبدا أي محمدنا المختار في القدم يا محمدنا المختار في القدم دفلني من كل وصف عميد هذا أبعل أجل مكة رجاء البرايا يوم مصدع وصليا يا إله وجيا أبدا واوا أنا صبيت نلتبي من كل وصف حميد هذا أبعل لكي رجاء البرايا يوم مصدع وصليا يا إله وجيا أبدا ووانا المختار في القدم دفلني وكان أسجعا أسقى الناس أيوة قلقا وقلقا وقير العذب والأمم وصليا يا إله ووانا المختار في القيد دخلني كانوا إذا أمر بعث هنا بعينين غاية القدم وصليا يا إلهي وجديا أبدا ووانا المختار أنا صبيا بمجيب دعوتي مملوك وراكبا حمار عدة الأوجاع والسقم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا مرنا مختار كان نفلني كانوا إذا مر بعصر يبتغون قد بدا في عينين قايات القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا وانا أنا سبينا التب إلى صلاصون يوما ما يذوق ما كان عبت بلال ضم من تومي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا منعنا المختار في القيل لغتك وقال لا إنني قد الكرماء ربه عونه كفيف الإمام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدا للمختار في لغتك وقال لا تستبد أنا صبي ابن الجبال قال لا تستبد أنا صبي ابن الجبال قال لا تستبد يا خيرة محمد رسول الله قال قال لا أنا صبي الالتبي قال لا تستبت يا خيرة الكرماء على فراسك والأحضاء في عين أمي وصليا يا إلهي محمد أنا المختار في القدم يا يا أنت بي yaa man bi taabal ilaahu li aadamin kay waaw kay grand plateau commencé ci na ana ñi féete woo njol màkk gën ji mbindeef nañu def ni ñu màggal ko yow yonent bi yaa man bi taabal ilaahu li aadamin du yëg nga ni tey mooy premier jour grand plateau faw ma ndokkale ko góor gu matal kóllëre ak jigéen ju baax te déggal borom kër yaa man bi taabal ilaahu li aadamin waaye góor gu mën a suturaal te mën a delloo njukkal ak jigéen ju baax bu wuyu ji boroomam yaa man bi taabali laa wali aadamin xadi colonel premier ngi nii mooy jour bi nu koy moom la ko daan bokkal ba mu wuyu ji boroomam yaa man bi taabal ilaa wali aadamin maître El Hadj Diouf jël naa émission bi tey may naa ko jigéen ju baax ba wuyu ji boroomam yaa man bi taabal ilaa wali aadamin premier jour daaw fi la ko doon fekk moo doon coordonné soxna muumi mu baax mi tey jii mu ngi ci almeeru yow yaa man bi taabal ilaahu li aadamin wax naa ni tey ma nga barzaq di ñu seetaan waaye bu réussiree tey xolom sedd ba mu mën a tëdd naa yaa man bi taabal ilaahu li aadamin Mouhamed jigéen ju baax déggaloon borom këram doon taxawee grand plateau ba yàlla woo ko barzaq yaa man bi taabal ilaahu li aadamin damay wax jigéen ju ñëwoon la doon doxal mission roy sayyidatuna Khadija bu wuy ji borom yaa man bi taabal ilaa uli aadamin waaye bëccëgam nga boo ko dee xool ci Sénégal doy na teraanga jigéen ju ne mel ni moom yaa man bi taabal ilaa uli aadamin wax naa ko ni ko zéro fët sagal nga sa borom kër ba àdduna kontaan ci yow nga tëdd almeeru yoo fi yaa man bi taabal ilaa uli aadamin maître yàlla nee na damay laaj ko lëre bu yawmal xiyaame waaye boo xoolee ni bugaan def bàmmeelam bi nga xam ni mën naa matal ko lëre yaa man bi taabal ilaa uli aadamin yéen jigéen yéen yéenay wax jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy këram cey ñaareel xaritu jëkkëram yaa man bi taawal ilaa wuli aadamin mama jigéen joo xam ni service am yëpp daan daw ndigalu borom këram di ko daw di ko daw ba tëddaal yo yoo yaa man bi taabal ilaa wuli aadamin premier jour Grand Plateau moom moo ko daan ko a koy doxal yaa man bi taabal ilaa wuli aadamin waaye na njort wi rafet te xam ni dem na aljana ñeenti siiña ngi jigéen ju ko matal dem aljana yaa man bi taabar ilaa wuli aadamil xadi yàlla yonent bi daan na wax ni jigéen bu dee matal julli juróomam yoonu aljanaam taxaw na yaa man bi taabar ilaa wuli aadamil jigéen bu dee wóor weeru kooram aljanaam taxaw na yaa man bi taabar ilaa wuli aadamil jigéen bu dee wóor weeru kooram aljanaam taxaw na yaa man bi taabar ilaa wuli jigéen bu sàmmee boppam aljanaam taxaw na sayyiduna muhammad ya man bi taabal ilaa wuli aadamin jigéen bu toppee muhammad ndigalal borom këram aljanaam taxaw na man bi taabal ilaa wuli aadamin maa dugg almeeru yoo fi gis ni bugaan def ma ni ko matal nga kóllëre bi mi dund ba bi mu dee topp yaa man bi taabal ilaa wuli aadamin Abdou am na jigéen ñoo xam ni bu nu génnee ceew fidd bu lay def ci yow bi taabal muy dund bugaan bëgg na ko waaye bi mu deewee la ñàkk sabab yaa man bi taabal ilaa wuli aadamil El Diouf boo duggee almeeri yoo fii gis ni bugaan def yëf yi mu mii nga xam ni mën na la yaa man bi taabal ilaa wuli aadamil nee na da ngay dund ma bëgg la nga a bi taabal ilaa wuli du day defar ba naan ko jomb na sa almeer di lëndëm dinaa taal lamp mu ñiit la ku la gis xam ni yaa ngi ana ñu bëgg Seydina Muhammad yaa man bi taabal ilaa wali aadamin fii la daan taxaw di ko coordonné muy rafet yàlla ni ko kaay da ngay dugg biir bàmmeel yaaman bi taabal ilaa wali aadamin boo duggee ci almeeri gis bugaan da koo defar ba kara ko ngir sofel yaaman bi taabal ilaa wali aadamin maître yamu ci bugaan jël marbre wërale ko ba jëlaay ver def ca yaaman bi taabal ilaa wali aadamin di wax naan ñaareel la woon xaritu jëkkëram la woon déggaloon na ko dinaa ko defaral ba jël fotom teg yaaman bi taabal ilaa maître Bougane day wax ni bu doon am naa droit di fa fanaan mat laa lay jël di fanaan ci wetam bu mu yaa man bi taabal ilaa wuli aadamil xadi xanaa xamoon ni bi xadijatu aawa yonent bi génnee àdduna vidde bu rëy la ci rasul yaa man bi taabal ilaa wuli aadamil yonent bi daan na toog rasul ñetti weer yoo xam ne ci ndu takk këram yaa man bi taabal ilaa wuli aadamil waaye bu duggee almeer yoo fi ba jàkkaarloog ñaari photom ya fa Bougane def nga xam ni mën naa mat matal ko lële yaa man bi taabal ilaahu li aadamil bu xëyee fay ay nit ñu ko koy layal muy nooy ba mu jël ay fleur def fa yaa man bi taabal ilaahu li aadamil bu ko ñaanalee ba pare joxoñ ko ni ko da ngay gore bi ngay dund dinaa ànd ak yow ba yowmal xiyaam yaa man bi taabal ilaahu li aadamil wallazina hum li amaanatihim wa ahdihim raa'uun yaa man bi taabal ilaahu li aadamil Xadija toog na ñetti weer yoo xam ni ci تاكل كالرسول نخلي مكون يا من بي تاب الاله لادم تكات فاتو عبد داماي واخني لا بيسام بي مو генي ادنا ñëpp di ko coow nit ñaa ngi jooy te xamuñu ko nit ñiy seede mbaax yi mu doon def premier jour tey bii di deuxième jour koor maa ngi ñaan yàlla képp kuy jullit te di ma seetaan amoo jotu xam ko maa ngi lay ñaan ngeen fukki lixlaas ak benn fa nga toog nga ñaanal ma ko ajaratu moomi bu ko borom këram gërëmee nabi ku ñeme topp ngaa gërëm googu yaa man bi taabal ilaahu li aadamin di ko ñaanal yàlla njabootam gi mu fi bàyyi yàlla tegal ko ci loxo ba nu sagal seen wéy yaa lillah wa li aadamin Khadija bi mu génnee àdduna maar nabi daan na toog weer weer woo xam ni gis nga xadi Cheikhul Xadim dafa ni oh. yàlla dama lay ñaan wa tawbatan xubilat maa miknatin rufiat maa zawjatin saluhat bi diini yàllaahu rasul soxna soo xamante ni da nga daan nekk France ni ko télé baa ngi noonu doxalal muy doxal nit ñi bu jotee mu kontaane ak ñoom damay wax ni premier jour euh, grand plateau nit ñi sëngéem ndogu yu neex yi moom la woon solu yu rafet yi muumi woon teraanga yu bari yi muumi woon enveloppe yu sakkani muumi la woon bugaan ni ko yaa ngi noonu rakk nga na nga xarit nga confidente nga loo wax ci télé bi doxalal loolu may wax ni grand plateau moo ko daan doxal juróom-ñaari at juróom-ñetti at yalla ni ko bu ren bii 2024 biir bàmmeel la lay fekk waaye da ngay baax damay wax ni àllarbay tey jii ma nga foofa ca barzak jàkkaarloog ñun duñu xool ànd ak mbégte ndax yóbbaale na ngërëmal borom këram Sénégal gërëm nañu ko am na ngërëmal way juram mu toog di reetaan nan ayo bugaan a ngi ne di yeeg escalier yi ndeysaan sama góor gi sama mag sama borom kër ndeysaan barzaq Muhammad a ngi nee toog tuubaanu amaluna yowmal xamis la hoo wa yowmul usnayni fi istigfaari zil jurami arab nee na yàgg fi lool te amoo njariñ amul sens gàtt fan lool te am njariñ moo ko ëpp sens yàlla ni ko xoolal ci soxna jaareetulaayi fanweeri at ak ñett la dund turam dootul fay saa yoo tuddee doomam ju baax ji tuddaale ko xoolal fatimatu bintu rasool vingt-neuf ans six mois la dund yàggu fi yàqu fi ndaw si de quatre-vingt-deux la gane adduna deux mille vingt la fi jóge jaloorem du fi jeex mbaaxam du fi jeex wala rëy borom këram du fi jeex Mustafa walaysa li amalun alxaaka yaa amali walaysa li amalun alxaaka yaa siwa almahabbati wa taadimi wa salami ya ilahi ah, محمد أنا المختار يا نبو دفلن يا رب صلي على المحمود سيدنا أي واقبل شفاعته فينا ولم نضم يا ربي صلي على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا يلا نيولاي نيان واقبل يلا نيولاي نيان واقبل واقبل شفاعته fina walam nu xame maa ngi ñaan ñi ci facebook bi ak ñi ñuy seetaan képp ku bëgg yonent bi ci sunu mbégte li ñuy wax foo ne defal ma ñeen fukki lexlaas 41 ak benn ñu daw dawal ko ci bàmmeelu soxna muumi ñaanal itam borom këram yàlla yokku teraangaam njaboot gi mu bàyyi yàlla teg ci loxo ci barki Seydina Muhammad ma bàyyi langa doxal euh, dañuy dem ci ci réseaux sociaux yi maman ñu xool deux personnes yoo xam ne ku ci nekk dinañ ko jéem a jox vingt cinq mille francs jéem a ñëw également ci partenaires yi voilà Khady xam naa ne fi mu toll nii moom xol yëpp a tooy donc dañuy daal di euh, poursuivre rek joxe ci li nga xamante ni mooy xéwal yi comme ni ma ko waxee woon sànq continuer leen di réagir suñu page officielle Sen TV ngeen bàyyi seen tour ak seen numéro téléphone ak fi nga ñuy envoyé message ñi nga xamante ni ñoo gën a commenté partagé ak aimé émission bi ñoom laay euh, jox ci enveloppe yu vingt cinq mille francs donc mun naa commencé jox ki nga xamante ni mu ngi tudd euh, Mariam Sidibé moom nee na mu ngi dëkk ba Touba donc Mariam Sidibé am nga fi benn enveloppe bu 25000 francs après ñu yónnee la ko par Orange Money sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 78 095 07 ak li ci topp su ma jógee ci Mariam Sidibé ma daal di may. ki nga xamante ne mu ngi tudd euh, Tafa Fall Moustapha Fall Moustapha Fall euh, sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 77 685 68 ak li ci topp donc xaddi mu ngi noonu enveloppe bu 50 000 francs ci euh, réseaux sociaux yi donc bu fekkee bu ci kanamee rek bu ñu mënee jël benn appel tamit joxe yeneen ñaari enveloppe yu 25 000 francs mais balaa may jeexal mun nañ daal di remercier suñu ay partenaires yi nga xamante ne ñoo ñu jàppale ku ci mel ni Orange Nescafé 100 pour son naturel de qualité supérieure daanaka ñoom ñu sax ñoo fi nekk duñu servir ay café pour euh, rester en pleine forme euh, Bridel tamit ñu ngi koy remercier bu baax a baax Ecobank la banque panafricaine Sénégindia numéro un de l'immobilier au Sénégal ñu ngi remercier tamit Canal Plus euh, Presea Beko waaye dañu fàtte benn yoon tamit euh, Matidi euh, mu nekk benn marque bu spécialisé wu ci fabrication au montres gis ngeen montre bi ma takk nii donc Matidi la Mohamed Diop tamit mu takk tamit marque Matidi la donc mu ngi noonu am na aussi ay sac ak dañu spécialisé aussi ay sac à main benn baa di colonel ak euh, wetu Fatima ay saak rafet la yoo xamante ni dafa raffiné pour les femmes euh, qui souhaitent vraiment se faire démarquer euh, pendant une cérémonie ou bien un rendez-vous très important waaye tamit dañu yëngu ci fabrication maroquinerie de luxe au design africain pour hommes et femmes ñu leen di remercier bu baax a baax suñu partenaires yooyu donc bu ci kanamee léegi bu amee kenn ku dugg rek ma daal di ko jox benn montre Matidi enveloppe vingt cinq mille francs wala ma jox ko tamit ci saaku Matidi xadi colonel. Voilà continuer leen di commenter muy ci page Facebook bi Sen TV l'officiel di également YouTube maman dina dugg ci ñaar yëpp euh, bu ko defee bu ci seen chance nekkee rek. Euh, salaamaaleykum maman est-ce que bu baax de. voilà jëlal jëlal. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ ñu ngi lay bu baax a baax. waaw yi rek laa bëgg. Euh, noo noo tudd ak fan nga ñuy woowee. man maa leen di woowee di dimbal di bu baax nga ni Thierno foo ñuy woowee. yëmbal yëmbal. yëmbal naka koor gi. waaw yaa ngi koy gérer bu baax a baax Thierno. waaw. noo gisee sa émission grand plateau bi. waaw ci émission grand plateau moom laay suivre lii de. yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax macha allah. macha allah donc Thierno yow euh, am nga fi benn enveloppe bu vingt cinq mille francs. waaw ñoo la ko may ci xol bu sedd guy mu daal di nekk sa suukaru koor. macha allah macha allah. léegi da nga fiy bàyyi sa numéro téléphone bu ko defee ñu yónnee la ko par Orange Money. waaw 77. 77. 474. 474. 98. 98. 56. 474 98. 56. 56. waaw. Thierno. Thierno waaw naka nga ni rappelé ma sant bi. sama sama numéro. bi sant bi naka la. Diouf Diouf. Thierno Diouf d'accord Thierno Diouf. waaw waaw baax baax. <laughs> waaw kontaan naa bu baax a baax. allah ñoo la gën a kontaan Thierno. waaw yàlla na yàlla suñu borom bi dolli xéewal. amiin yaa rabbi. li ngeen def rafet na nga jaar na yoon duñ ko rate mukk macha kontaan nañ trop jërëjëf Thierno. waaw kay jërëjëf man maa ngi dëgg la. Ah. waaw ñu ngi ko yónnee léegi sax incha euh, allah. juste maman préciser que que muy Thierno di ñi ñuy jël ñëpp. que amul kenn ku leen di woo wala lenn lu ñu war a fay seen TV ci boppam moo leen di woo directement bu ko defee ñu mën a jot ci seen xaalis. c'est important merci de de l'avoir précisé donc nag euh, mu ngi noonu continuer leen euh, di euh, di def signe a suñu page officielle Sen TV nañu tànn numéro ci kenn ci yéen daal di koy woo. jox maman mel na ni am na keneen ku dugg de. am na keneen ku dugg. ay ah. ci allo. allo salaamaaleykum. allo. allo. alors déggante bi dafa des dinañu jéem a jokkoowaat ak ñeneen incha allah continuer leen di di essayer alors bu ñu bu ñu delloo ci maître maître tout à ñu ngi taxawoon ci amnistie bi euh, je le disais tantôt bari na ci ay laaj yoo xamante ne am nañ ko ci mais maître amnistie boobu euh, son ko ci boppam toog na mu wax ni moom bëggul amnistie ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ci ay jegeñaaleem également insisté nañ sur le fait que ils ne sont pas demandeurs Euh, général est-ce que nit toujours lu wax dëgg la doo dégg Sonko lee Sonko moom mësul wax dëgg ci àddinaam Sonko bi mu commencé politique nar rek ak nax lu dul dëgg lañu lañu lu wax rek après le contraire lay wax nit ci boppam ñu dalee ko ak ñi mu àndal Sonko lee ndax dañu tàmbaloon fenn tàmbal ñu manipulation boo amee koo xam ne politique bi manipulation la mooy Sonko réussir na ko nag en partie ndax xam nga xel ñëpp amuñu ko ñu bëri ñoo yi ñoo yem am na nooy doxee seen kër xel am leen ñu gëm la te yow ne la leen dara lu tax ñu laa gëm mais ci ay technique ay plan yónnee Atépa Goudiaby yónnee Alioune Tine ñuy dem ak ñëw di jaagar jaagari nga ne yow d'accord ci te ñoo tax lii am Alioune lu mu bëggoon mooy Sonko génn ak Bassirou Diomaye toujours mu wax ko Atepa Goudiaby ba mu ko bëggee ñu ne ko escroc nga ki ne ko woon escroc nga mujj gi moom lay waxtaan la suba ngoon muy président Macky Sall ci lan ci parce que moom moo gën a jege Sonko ñu mbala may bëggee ñu naan. mais mais d'après lu ñu wax moom ak pas seen gisante yàggul ay simili la. ku la wax loolu. chef de protocole. <laughs> loolu am nga wax ko. foog naa ne général day muus yooyu il faut la le <laughs> yow chef protocole du nekk prison bay fekkee audience yi ban prisonnier même président de la république bu ñu ko jàppee tëj ko comme président Niger soo suma xarit Mohamed Bazoum ñoo doon ànd diriger grève yi université de Dakar yàlla nañu ko bàyyi parce que defuñ dara ay militaire poursuite ñoo ko nangu pouvoir bi ci moom mani da ngeen war a gën a muus am na ñoo xam ni ci manipulation rek la ñuy dox parce que Atepa Goudiaby moo wax RFI ni mu ngi ci diggante Macky Sall ak Sonko mais Sonko nee na ko génn xale yi ba pare sama xale yi génn ñu nga tëj ba pare waxu loolu kon xam nga mu ñu ngi waxtaan chef de protocole mënoo nekk prison am ko waaye kañ ngeen ne muus kon kooku day fen bu dee benn minute nangam la ko gis day kàcc ndax amul droit toog comme ni mu koy defee kër Sonko wala bureau du dugal ñi di génne di par dëkk programme prison garde pénitentiaire yaa fa nekk di garde Sonko boo ñëwee foofu tuuti la lay lañ la recevoir dafa nga toog tuuti minute lañ la may ngi pare ñu ne abalel waaw mais moom bu ko fekkewul te Ousmane Sonko wax ko ko nag Sonko du lenaa la ci ci nar a kàcc la dëkk Sonko jox ma naa ko dëgg moom avant ñu koy tëj lu mu la wax du dëgg Sonko lee man yow kere wu ma Sonko lee de dañ ko doon tegalee yëpp dañ weddi boo taxaw ni Macky Sall am na droit troisième mandat am nañ am nañ fi vidéo bi yeewu ni di ko campagne élection législative naan bu ngeen ko falee mooy da ko bëgg a jox troisième mandat te amu ci droit moom ak Barthélémy Dias am nañ vidéo yi fi ñuy waxee ne Macky am na droit troisième mandat xam nga nag dama seetlu plateau bi ma de boo wax ay fenn Sonko kenn du yëngatu ñëppay tiit kenn du ca du ni ma wax dëgg la. kenn du la met parce que bu doon la def loolu dëgg la waaye yaa ngi xam commentaire yi saaga yi ndax bu ngeen waxee man saaga yi <laughs> je m'en fous. ku ma saaga sa ndey nga saaga sa baay ndax sa ndey jur lu may saaga kat. ñeneen ndey jur nañ ay journaliste ay médecin ay avocat ay magistrat yow nga nekk saagakat pour pour benn nit kon boog boo may saaga ci li may wax c'est que bëggoo sa ndey bëggoo sa baay ku saaga ndeyu jàmbur bëggoo sa ndey te moo tax ma gis ci plateau yu bëri kenn du ñemee dëggal njaaxum waa joojo ñépp ko ragal moom nag Hitler laa gis cest à nappaate fascisme ba ñëpp ragal la nga yow këf këf Ah, loolu moom maître loolu tax ma sonn loolu sa gis-gis loolu tax may xeex balaa ñu ñëw këf réew mi ci ay manipulation ci yow doo dara maître kenn xamul sa projet boobu projet la alors alors oui maître bu ñu ñëwee ci loi d'amnistie bi aujourd'hui kon euh, kan moo am intérêt je peux je peux je peux je peux terminer ma question kan moo am intérêt aujourd'hui à ce que ñu vote cette loi d'amnistie bi nga xam ne pardon pardon légal ah, ah, benn philosophe nee na l'action de l'homme est toujours guidée par l'intérêt au la folie nit bu bëggee dara ñaare tax ma bëgg ko soit am nañu ci njëriñ wala ab dof la te man gëw ma ni Sonko dof la gëw ma ni ñoom ay dof lañu. mais mais Sonko yóbbu ko assemblée nationale. yaa ma laaj kon tontu sa bopp man pare naa ci. non non dama lay relance rek. pas de ngay relance même pas une seconde. le projet de loi président de la république Macky Sall moo man xamante ne ñun ñaar. doo ma poser question commencé ko tontu nga dama relancer. amul sens Mohamed amul sens allez-y maître amul sens. allez-y maître dag may dagg na li wax neexu la mais bu ma dagg. allez-y maître allez-y. commencé ku bëgg di ma relancer. da ngay bàyyi ba ma pare kay. léegi ñu ngi lay déglu maître. alors nga ne kan moo am intérêt. oui man ma expliqué di philosophe bi wax. commencé ku bëgg nga ne ma da ngay relancer. quelle contradiction. on vous écoute. allez-y allez-y dama ni. oui. kan moo am intérêt. ci génn prison ni metti soxla say jabar sa njaboot sa parti bëgg def campagne pour jël réew mi ëllëg. kan moo ko bëgg kan moo ci am intérêt kan moo bëgg a génn ñaan diw mooy moom mooy diw mu ànd moom ñuy ànd pour jéem a jël mi ëllëg ku ci am intérêt ku am intérêt gis ay jegam ay jongomaam ñu cuuraay mu tëdd tappe yu bon yee mbàjj yu bon yee nekk ca prison ba ku am intérêt def la say jigo defal la say li nga bëgg yëpp sa kër ñu jël dafa ay ndogu ak weeru koor ni méttee kenn ci ñoom ku mu jaral prison nga def grève de la fin pour dee ba dem bay bëgg a dee ndax ndax bañ prison kër moo intérêt pour loolu nga bañoon bu ñëwee ah nangu nañ ko mooy demoon nga bay bëgg ndax bañ prison bi ay weer ngay grève de la faim ñëpp di la ñaan nga bàyyi ko ndax prison bi nga bañ ñu ne kaay génn prison bi nga bañ bi la jaral nga xaru parce que bu dee woon ci grève de la faim xaru la kon la nga lan la tax nga bëgg xaru bi ko dindee doo fecc temps yi kay li ngay fecc xam naa seen bureau seen chambre de prison ya bu guddee yéen a di nu koy tuddee di ndaw ràbbin suñu doom ci yooyu la nekk kon kenn intérêt Sonko la ak groupe am ki am intérêt mooy bandi yi doon taal dëkk bi de taal bus yi di rey nit ñi taal fi Elhadj Diouf di taal Auchan di toj station essence yi ñoom ñu président de la République maître mi nga xam ne moom moo yóbbu projet de loi à l'Assemblée nationale moom mi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu tànn mu jiite réew mi mu waroon a mën ñu leeral ci commission d'enquête bi ñu doon wax par rapport aux 14 morts du mois de mars ñu ñàkk seen bakkan au mois de juin ak ñi nga xam ne ñoo mujjee faatu ci reportu élection présidentielle bi kooku amu ci intérêt. amu ci intérêt am da ci parce que wax kenn du ko topp dara. ñam jàpp ñu benn militant bu ko jege bu ci am intérêt ci génn bi xam nga kaso daa métti yow da nga nekkoon kaso yàlla boo fa dem. boo nekkoon kaso tey wala sa rakk wala sa doom nekk kaso loo def lu muy mujjee da nga fay ka ay million dañu fay ñun ay millions pour génn ñu nekk ci kaso ba. Sonko pour génn kaso jël na trente deux avocats dañ doon jël ay Branco France jëli ay avocats Comores fu ne pour génn kaso bu ne ko kaay kay ne allahu akbar sama sëriñ sama sëriñ bi na. et la responsabilité du président de la République. amul ci benn responsabilité. ah oui mais celui qui accepte aujourd'hui génnee ko ci yow li nga ko jàppee que ne Ousmane Sonko lay arrangé nga dippee ko deal ou négociation ba mu génn. sa responsabilité amu ci. bu kan. bu le président de la Macky Sall. président yóbbu le projet de loi jox na ko. oui. président. jikkoog borom ba ci pax. Sénégal yi tiit nañu. ndax taalkat yi borom cocktail molotov yi. reykatu nit ñi. te nañ def membre Doudou Faye bi ñu commencé génn. nañoo ñu ñu ci booru kon ci VDN 3 bi barki dem borom kaar bi. band yi génne waat prison nga xam ne eh, eh, lañ xam sàcc lay toj Auchan gàddu yóbbu ñooñu du ñu changé. mais sauf que dafa am ñu dund nag même. dama ni le président bëgg pacifier peut-être. non loolu du pacifier booy pacifier. doo génn ñii rendi ñii dóor ñii taal kër El Hadj ñii taal oto Matar Ba ministre. mais maître ñii taal oto Abdou Latif Coulibaly ministre. maître ñii topp station essence yi di di toj. ñi topp magasin Auchan yi di taal di toj génn leen lan la pacifier Mohamed. mais maître il y a eu plus de. vas-y crime financier bokkul parce que am na ci ñoom ñoo xamante ne nekk nañ ci pouvoir bi te ñu ngi leen di tuumal affaire bu baaxul xam nga benn crime financier xam nga am na si lan la. Hmm. nelaar nelaar moo bon Sénégal bëri nelaar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xam-xam jarul ci ba Chine. yow oustaz defe naa man dama koy dégg de la seetlu naa mais ñu bëri aw yi xam yore seen làmmiñ wu rëy ci cere yi di fen di kàcc rek dama ne président lan moom ay nitam amnistie bi concerné wu leen ndax dañ les faits xam nga du ñu amnistie ay nit ay jëf la ñu amnistier. jëf yu am ci nguuram. non waxul ay nguuram déglul dañ dañ ni février deux mille vingt et ba. vingt cinq février deux mille ba deux mille vingt quatre ñi ñu jàppoon ci ay manifestations nga xam ne soit mu nekk correction wala criminel ci manifestation yooyu ñañ nga ca jàppoon ñoo ñëpp nañ leen amnistier. mais kenn gu leen maître. waxuma jugé xam nga amnistie les faits faits yi mën nañu ko jugé comme mën nañu ko ñàkk a jugé parce que du nit ñi xam yaa ngi jugé wax kenn du jugé bu demee bay jugé nit ki la ñuy jugé mais bu ñu amnistie faits yi la ñu amnistie kon amul benn nit boo xam ni président mu koy protégé boo xam ni xaritam la wala ministre am la wala ku ànd ak moom koo xam ni amnistie bi am na ci voilà mais mais ay nit yu ñàkk seen bakkan. ñu ne dañu leen tiré à amu ci benn intérêt. ki doon yónnee ne naa léegi ma dee bu ngeen ma génn ma dee kooku ci am intérêt. et à balle réelle yi parce que. ay autopsie monsieur Guèye de la Fère. ay moo ci am ay nit yoo xamante ne dañu leen a dóor bal ñu ñu ñàkk seen bakkan autopsie ñoo ko génnee. dëgg la. je confirme gis quand même ay nervi ci watu auto police loolu gis nga ko. donc gisuma loolu. ba France 24 ñun gis nañu ko ba France 24 def ci. France 24 moom dafa faral Sonko. waaw ndeysaan ñoom dañuy terroriser bañ France ne France frappe dégage. ñu mujj di ko seeg français ba nekk léegi Sonko taalibe France la léegi. léegi Mélenchon mooy nijaayu Sonko. léegi ak loolu dinañ ci ñëw. te Mélenchon journaliste yu bëri rek France 24 ak ak RFI parti Mélenchon lañ bokk. Euh, bi. Paris laa jógee barki démb. alors Bellaton j'ai vu. maître loolu Paris ça fait une semaine. loolu question bi les tirs à balles réelles. mais Bellaton terrain gaa rek la. dara maître les, les tirs à balles de Sonko sur des manifestants maître El Hadji Diouf. balles réelles yooyu am. oui ak ci manifestants yi est-ce que du. président président président président faale wu la li ngay wax intéressé wu ko xam nga Sénégal. te ngeen di wax ci plateau yi ñàkk fay yooyu. mais mais lii Sénégal la. yow doo Sénégal dama ni doo député député ñoo ñoo député Sénégal. ay bakkan ñoo rëbb dem plus de plus de quatre-vingts plus de quatre-vingts morts maître. waaw ñooñu ñi ñi leen rey ñi leen rey ak seen patron ñi ak ñi àndaloon ba mu jëlaat leen ñooñu dem di rayante ji di attaqué ay policiers dama ni président masul wax manifester leen ñu manifester mu am ku dee. masul am meeting wala rassemblement bu pouvoir bi bu bennoo. wala bu APR mu am ku dee waaye dañu ñëw naan garsa garsa combat mortel mortel mooy nan nañu dee mortel combat jàmm dee waxu ko ni ni ni Gandhi di waxee Gandhi lu waxoon pacifique Ahmad Bamba ñoom ñëpp lu ñu waxoon si Ahmad Bamba résistance pacifique suñu tubaab génn arme de dem na ba Mayombe dem na ba Gabon masu génne arme mais maître quand il y a. manifestation bu ñu c'est important pour dagg bu ko dagg. salaama ngi yàlla dama ne la dama ne la euh, résistance bi am ñoom xam nañ ni Macky Sall amul ci benn intérêt am nañu dóor ay bal kenn xamul ko leen dóor bal mais renseignement yi ma am. mooy am na ay rebelle yu jógee Casamance. Ah ñu ñu massacré seen base rebelle yëpp xam ngeen ne Macky Sall au moins lañ ko mën a waxal tàcc ko mooy base rebelle amatul Casamance on a unifié le territoire national jëf Macky félicitation waaye comme rebelle yi am na ñu ñu àndal ci politique bi te ñëpp ragal leen ku ko wax dee ñoo doon rey nit ñi ñu ëpp il a lim am ci preuve du ko mën a wax dañ leen biru na jaata Tanor Dieng dee nañ yóbbaale ay secret yu bëree bëri doo koy dégg. xam nga état mënul génne lépp ndax état su bëggul diviser état bi entre ay rebelle te bëgg ñëpp ànd nekk benn. c'est mais mais am na ñoo xam ne dañoo yore fetal ci biir manifestation yi di rey ay nit. pour ne déggoo moo tax ma tax ba contre loi d'amnistie bi. ki ko porté ko yóbbu assemblée nationale c'est le président de la loolu laa la wax déggal ma ne président ah, bu gën a ay sëriñ bi ko liggéey. kon amagul ndax lii maa ngi sëriñ bi président tayu ko xanaa gars yi dañ ko liggéey ko. mais xanaa kon amagul sama ko dafa ni man damaa jaaxle. parce que au moins d' ci yow. barke alxuraan d' accord ma ci kenn mënu ma fay dix mille milliards de dollars ba ma d' accord ci. kenn du ma président wala chef président tax ma d' accord ci parce que man conviction lay demee Macky Sall mooy barki de boo jaay jarab bi man la xëcc sa loxo ba ci ascenseur bi gendarme yi tax mu ne érage kaay ak kat Amadou Ba kaay ak kat Mahmoud Saleh kaay kat Matar Cissé kaay kat Sidi Kaba ñun rek ñoo toog di añ ñoo toog mu ne ma kaay toog di sama wet ma yàgg mu ne ma yow côté gauche nga war a nekk ndax sama xol nga nekk parce que madrasa moo toog à gauche ma toog à droite te mën na njëkk ni kaay toog avant ñeneen ñi toog barke alxuraan télé bi ñëpp a ngi seetaan madrasa ngi seetaan Sidika baa ngi seetaan Amadou baa ngi seetaan président mën na njëkk ni kaay toog fii bi ñu nekk ascenseur bi fekk nañ fa ministre yu bëri ñu nuyu leen ascenseur bi bu ko ekkee mën a érage gendarme bi sax ma bàyyi ma dugg ci ñu nekk ci ascenseur bi xam nga kon président jox na ma cër mënoon naa ne kon amnistie bi dama ciy d'accord te maa gën a xeex amnistie bi billaahi ndax lu ma gëmul loolu nekk nekk sama xarit sama waajur li ma gëm laay wax man président nangul na ma loolu. xam na sama nature xam na sama jëme ñeme sama conviction je suis un homme de conviction. je suis contre l'amnistie billaay. lan nga ragal ci amnistie et keroog keroog jalo. bi ma añee ak président ba pare ñu yéeg plénière sama intervention dama ne président d'accord mu ci amnistie bi Sénégal yëpp monde bi yëpp di suivre dialogue bi télé bi en direct suivre nga ko nee ma président d'accord mu ci dialogue bi. ah te pourtant moom euh, ma ci ci ci ci amnistie bi ci biir dialogue bi te moom loolu la bëgg ki mooy sama xarit mu ñoom añ ñoo añ même pas une heure de temps après ñu yéeg kon man jiitaloo ma moo tax man damay far man dëgg laay wër ak li ma gëm moo tax je incompris noo mën a nekk xaritu président ne ko doo fi def troisième mandat ku doon wax loolu du man dama bëgg aussi saa si vous êtes les historiens du présent su ma mérite kenn du ko wax bi président ne def troisième mandat kenn xalaatuma mën nañ ne pourtant Benno yëpp moom kenn moo taxaw nii en tant que membre de Benno de la conférence des leaders de Benno yow mi suñu leader président doo fi defee troisième mandat si yi ci bëri amuñ fi tam sax ni El Hadj Diouf moo am mérite kii ànd ak président ba pare ni ko doo fi def troisième mandat bu yàgg waaye kooku ku wax day mel ne que yëkkati El Hadj Diouf da nga koy iñaane nañ koo wax ndax am na ñoo xam ne ragal te bu ñu waxee lu baax ci man ñooñu saaga leen ak réseaux sociaux yi saaga boo tax léegi wax dëgg sax dafa jafe même les professionnels de l'information et de la communication dañuy waas. mais mais mais ba biñ ko nee na lañu bëgg dem élection conseiller nga ko mu tànn dat avant le 2. non président daf ñoo jox ñu liggéey en commission. pour jàpp date bu baax proposé ko ko mu yóbbu ko conseil constitutionnel. mais du moom mu tëb tëb wax la deux. ginnaaw ñu def rencontre ak moom lundi mardi dañu def deux commissions ñii ci date bi ñii ndax 2 avril bu bu bu élection amul lan lañ war a def. sans les concernés. les moo mooy ñan 19 candidats yi. waaw ñooñu dañuy dara. mais ñoom ñooy dem élection. ku la ko wax. waaw ah, demuñu. ba nii nii dañooy dem. kon vingt yi pourquoi demuñu. ñoo ab vingt yan. luy di dix neuf lu jëlee luy di vingt luy di vingt ba dix neuf. ñoo ab tëddee Rose Wardini moo génn. sax demul. double nationalité. mais loolu romb nañu. dama ne dama bëgg ñu taxaw foofu seetlu. <laughs> ñooñu di wax kii moo war a dem kii warul dem. néewuñu woon Rose Wardini day dem. ok conseil constitutionnel. dama bëgg ngeen déglu ma bu baax yéen Sénégalais yi. tey rek lay leer. ñooñu waxoon ni ñii lañ jàpp li ñoo war a dem. Mm-hmm. boolewuñu ci woon Rose Wardini. est-ce que amoon nañ do est-ce que amoon nañ droit boole ko ci. bien sûr maître. amoon nañ droit boole ko ci. ci ba am double nationalité. mais est-ce que xamoon nañ ko. est-ce que amoon nañ les moyens pour def saytu boobu yëpp aussi. kon Karim Wade mi nga xam ne moom rek moo indi décret bi bu koy diwutoo dañ koy bàyyi mu jàll. parce que signalé wuñu ko. ko si waxuma waxuma signalé. y avait pas de recours. c'est ça waxuma signalé daf di Karim Wade mi ñu mi ñu téye. ci moom au moins avant ñuy wax ñii ñoo jàll. am nañ preuve bu leer nañ ni sénégalais rek la te rek lañ ko laaj. ki nga xam ni moom sénégalaise la ba day nekk française nit ñi ne ko jàll nga ak ñeneen ñuy soupçonné ni am nañ yeneen nationalité. parce que foofu amul recours maître. boo ay recours yow da ngaa tardé. li ma lay wax maître Thierno ni. contre yow xamoo ni. ñi nga xam ne dañu wax ñu jàll conseil constitutionnel dafa war a xayma seet ndax lii ñu wax ci yoon remplir nañu condition yi ñoom dañu toog ay at duñ def dara ñu def fay weer bu jot. bu ñu taxawee ci conseil bu élection jotee ci lañ leen jox liggéey bu mag ñu war a xayma ba joxe résultat kon waroon nañ xool candidat yooyu ndax vraiment am nañu nationalité sénégalaise rek. wala amuñu ko. est dañuy le conseil constitutionnel en large pouvoir. est-ce que mën nañu ko xool ci diir bi en large pouvoir d'investigation. parce que li ko dafay càmbar di mais ñëpp nangu nañu ne am na ay couac. bu ñu waxee par exemple Serigne Mboub conseil constitutionnel xam na ni l'article vingt huit nee na. da nga war a am benn nationalité. da nga war a écrire. et lire parler couramment. le français ci même article bi la. nga nationalité bi nu amee doole. ci la dégg français bu baax couramment. mais mais ku la wax déggul français maître. déglu ma colonel man de yéen bu leen neexee ngeen tànn seen bàmmeel nga lakk leen ku ci neex nga toog di fen fen ma bakkaar bi gën a rëy ak di jaay dof ak tapet mais xam ngeen ni sëriñ bu toog ñu interview ko léeg laay da koy inversé mooy mënu ko aligné ba mu nekk ku ne dëgg la fii defee daal ñun ñaar ku ñu fay yaa ngi dee safara mais yow it métti na la. dama ni dama non weeru koor la nekk dama ni. pour une émission française bu fekkee ni kenn ci yéen mën na waat ak bàmmeelam ni sëriñ bu parle couramment le français nga xam ni kooku gëmul yàlla safara la bëgg a dem. ci weeru koor bi. maître defuñu affirmation c'est une question maître. teg c'est une question du affirmation. sëriñ bu parle couramment le français. kóolal ñeme nga doon ci weeru koor. maître encore une fois du affirmation c'est une question. dama la dama ne la mën nga wax sa travail bàmmeel sa sëriñ buub parle couramment le français. c'est une question d'affirmation. non xam nga ñun ñëpp sénégalais ñoo gën a xam ne sëriñ buub xaadim sàmb dañuy làkk français boo xam da ngay ree ba tas. cinéma la ndax xaw foo la wër rek wala laa xamu tur yi lu ne la def mais mais mën nañ ko foyee. mais da ko foyee ba rek président ka loo xam ne loi bi moo ni waroo dem candidature. la complaisance kon conseil constitutionnel seetul Rose Bardini moo tax Rose daa bind ne damaa bëgg ngeen génne ma bu bindutoon conseil mën su ko génne ndax nañ ni les arrêts du conseil constitutionnel sont inattaquables amul recours insusceptible de recours xam nga affaire bu neexee dana la am bu Rose bindutoon ni génne leen ma <laughs> xaw ma Rose pourquoi nga bind war a wane bind ñu xool ndax décision bi mu jël mënu koo weddi te kenn mënu koo attaqué inattaquable te rootal ci biir loolu du musiba te preuve am na bay arrêté ko li jaaxal ñëpp nee nañ am na yeneen candidat yi nga xam. waaw ñu ngi lam lam il paraît yu bëri ay six ak ay sept nit ci biir. mais mais kon liggéey bi waroon def. defuñu ko préalable. defuñu ko. est-ce que am nañ les moyens aussi. conseil conseil incompétence la wane. waaw foofu a ñëw euh, maître bu wax ñoo mu ne man dama dama dama de arrêt bi ci topp bi la. que suite à la lettre adressée au conseil par madame Rose Wardini que demande son retrait que dafa bëgg génn ci liste bi même jour bi bindee même jour lañ génnee décision bi pour dire ko yàkkamtoon xiif ko pour pour pour. mën a noyyi un peu parce que cas bu grave ma c'est-à-dire arrêt bi tànk rose bi nul ne da bëggatuma day dem élection. te ngeen xam ne am na am na am na double nationalité. te kon ñu ngi violé loi bi kon conseil. c'est pas le président de la république. ñuy tàcc conseil conseil bi war nañ ko nanga tontu ci conseil constitutionnel pour Karim Wade dafa am recours bu Thierno Alassane Sall et pour les autres. jusqu'à présent il n'y a pas de recours démission Rose Wardini la am moo tax ñu def dix-neuf candidats. dama ne recours moom possibilité bu ñu may rek candidat bu ne d'accord ma ñoom ñëpp candidat yi am nañ droit ci ñi ñu dese seen biir ku ci am loo d'accordul nga wax ko. na Thierno Assane d'accord ci Boukhari Wade ndax pour moom nee na bi muy déposé dossier bi décret bi ñëwagul léegi la décret bi ñëw te Karim bi bindoon na autorité consulaire yi. yow ba bëgg tuddeeg français wala allemand wala beneen dëkk bind nga demoo bind entraîneur football bi équipe nationale ba bind loo artiste ba fa gën aay consulat bi fa nekk état français bu yore l' état des personnes ñi dee ñi juddu euh, ak ñi noyyi ñi recensé nit ñi nga bind ne man sa consulat bëggatuma nekk français signé ko décret boobu ñu wax mën na toog mille ans dix ans vingt ans ah bu dee France ñoom tal taluñu la ñu ngi nalaw duñ la ma sa tóortoo wala tool yi deux mille ans fekk yow say sœurs yi sax dee nañ ak say sœurs sa taat ñu soog a jël décret bi. amul benn obligation bu ñu def dina dégg koy jot décret bi tout kon liñ soxla mooy wane ni yow l'intention vaut l'acte en droit. d'accord nga boo yore bëgg rey nit tiire fekk bal bi da nga fa dugal bal bi fàtte nga ko mais rey mu la jublu woon dañuy àtte comme ko bëggoon rey nit. d'accord nga de loolu mooy l'intention coupable te fii l'intention de se débarrasser de la nationalité française elle est manifeste elle est évidente donc Karim ki wul ko tere bokk. d'accord mais mais mais mais mujjul bokk. moom. rek moom kenn ci ñoom ñëpp ñuy ñuy jiiñ loolu ak rose bi feeñ le kenn rek ci leeral ni nekk sur français ah, dans cette affaire là ku dul mais mais yow ñii dañu am nationalité sàngam mhm. ñii ñu ne am nañ bu France ñii bu Amérique Rose Wardini ma am naa ñaar yëpp waaye bii naa ma ne comme comme comme Karim waaye bàyyi nañ ma ma jàll mhm. ndax amu recours mais même bu amu recours foofu laay tontu conseil constitutionnel lan mooy liggéeyam day toog ay at du liggéey dara élection du am waaye élection bi ñu dénk dafa di càmbar te il a un large pouvoir d' mooy am na droit fu ne mu dugg fa vérifier seet ñii ma xam ni dañoo ñëw ñu waree na jàllale nañu xool daf dégg nañ français ñu écarté Serigne Boub Abdou Bara Dolly ñu écarté ko dégguñu français dañuy ñëw toog xabar xabar soo ay maxala naan man doom daara laa mais doomu daara dafa baax mais am na fu mu baax. mais la loi dañu la dure et la loi. loi moo ni ku déggul français bu baax couramment di ko làkk làkk bu ñëpp kontaan bu Senghor Senghor mooy exemple Sénégal l'académicien Senghor. mais à ce stade. foofu de. l'avocat le brillant. Ablaye Wade. loi yëpp. l'ingénieur Macky ay cadre loolu loi bi wax da war a mën a parler couramment le français mooy jàng nga jàng mu tax nga war a jiite réew ndax réew kenn du ko foyee. mais ñi du golo ku jóg cëppi cëppi. ndax am naa tuuti xaalis. am naa entreprise am na ay employé damay dem jël employé yi jël oto yi. damay jaayee oto. nañ dem campagne gis nañ fi ñu nga xamante ne jàng làkk le français te terewul am na ay lënc lënc ci réew mi. yow hors sujet nga def sujet nga def. non du hors sujet mais c'est vrai que neewuñ ñu yàq réew mi ak ñu defar réew mi. loi bi moo ni loi bi moo ni dafa am benn nationalité ci dégg français. d'accord mais kon yàq réew mi nekkul ci loi bi. mais maître. bàyyi leen di def yëfu dof ak ni. jaay affaire yoo xam ni ban. mais kaw la xanaa dafa am loo fa loo fa bëgg. non bëgguma fa ah, dara y' a une co dafa am lu xam une Abdou Bara Dolly dëggul mhm. te sëriñ la. man murid laa moom teel naa génn. sëñ Tuubaa sama sëriñ. waa Daaru Salaam laa. ñoom génnul di ko génnee mais bëggoon na ni sëriñ boobu bëggee ñoom ñaar ñëpp lay attaqué ba lu ne lañu ma yàq mais bañu ma dama leen sa bëgg mais man ni ma mel comme Macky Sall mi ma àjjal ba pare dem taxaw ne ko amnistie bi d'accord wacc ndax man noonu la ma yàlla bi bindee man maa añak Macky Sall lundi bi ñu defee dialogue bi ci appartement privé bi nekk jam ñaajo man maa añ am privilège añak président ñu neen dem plénière une heure de temps après man ko d'accord wacc da nga def waaw du ngeen saluer l'esprit d'indépendance mais raisons yi tax mu def ko parce que moom pardon ak réconciliation lañu lañu loolu la wax loolu la la wax loolu la wax ñëpp mais dama mu ne dafa bëgg pacifier jàmm pour man jàmm loolu du ko indi kon man bu ma nee il faut parler couramment le français du maa ko wax de loi bi article vingt huit moo ko wax. nangul nañ la ko mais. pourquoi conseil constitutionnel xam ni ñoom ñëpp ay dañuy seetaan xam na ni waajur sëriñ boobu ku bëgg presse la ku bëgg wax ci télé yeeg rajo yi la tous les jours mu ci. kon am nañu occasion ñoom kenn dégg ko xam ne kii moo xarit Samba sama xarit ñoo yem. da ngay ree day neex sax li ñuy waxee da ngay kon ñoom dégguñu français. Abdou Bara Dolly léegi buy liir keroog buy liir keroog jàkkaarloo bañ joge mu ne bu waree dégg français muy liir comme sama doom bi nga xam ne mu ngi soog a nekk jardin d'enfant mariste. façon yooyu ñoo nekk chef de l'État du Sénégal ah. dem Nations Unies. dem CEDEAO dem Union africaine. ñu ne le président de la république. Euh, Modou Ibra Niang à la parole. mu jóg jëm micro bi di toj yax yi di toj yax yi Molière di yëngatu Senghor di yëngatu seen bàmmeel. d' accord ñëpp dañuy rey ñu ne Sénégal bu Senghor. Euh, maître la mérité mais loi bi moom réglé na ko. loi bi nee na ku déggul français bu baax. loo nekk président loo nekk rek doomu daara. wala nga nekk commerçant bu bëri xaalis. wala nga nekk milliardaire. mënuloo nekk président du Sénégal. la loi bi la. raay boo ko wàccee train bi bu wàccee raay bi lu ñuy wax. déraillé déraillé tey booy bokkatuloo euh, voyage bi dañ koy arrêté. ko léegi léegi am kii passagers yi wàcc jël ay yenn moyen de transport ñibbi wala ñu continuer mais da ngay dé ñoom dañu déraillé ndax raay bi mooy da ngay war a làkk français doomu daara lu baax la da ko mubboo nag pour violer loi bi loolu laa dul nangu bëgg a jaxase doomu daara yi. ak loi bi xam nga lu la war a def ñoom fekkee député yi nekk assemblée wala ne nangu leen doomu daara yi. c'est ça. Mm-hmm. même bu ñu déggul français comme doomu jàgg nañu arabe. ñu boole leen ci ñu boole changé loi bi. parce que amul fenn fu ñu jàngee aussi euh, jiitu ji anam gi ngay jiitee réew. voilà président de la république amul fenn fu. mais comme loi bi moom rek moo fi nekk. loi bi mooy aar Sénégal. soppi ko xam nga loi moom du pour kenn. Mm. la loi est impersonnelle et générale ba boobu est-ce que sëriñ boobu juddu na. loi bi muy am sëriñ boobu judduwul kon loi boobu sëriñ boobu taxul képp koo xam ne jàngoo français bu baax di ko lakk làkk bu nice bu neex ba foo demee ci turu Sénégal ñu ne le Sénégal à la parole monsieur le président diw vous avez la parole boo jógee da ngay sagal sa réew waaye doo jóg di wax jëba eh, muy sama ndey ay eh, way chaque minute bu toj yax chaque minute bu toj yax jëba waaw kii Sénégal nalaw nañ de looloo taxee ne loi bi tëral loolu mais li ma seetlu mooy yow yaa say morom dimbalewul Sénégal. très bien ndax da ngeen am da ngeen complaisant yéen ñëpp complaisance mooy xam ne lii loi bi moo ko wax Mohamed gisuma benn journaliste pour taxaw ni sëriñ bu warul bokk ci élection yi ndax il ne parle pas couramment mu naan. Thierno Alassane Sall moo def recours contre Karim Wade noorul bokk ay nationalité mais loi bi wax affaire nationalité article vingt huit moo wax ci France yi mu continuer même article bi que pour nga nekk président pour ñu jël sa candidature vous devez parler vous devez écrire et parler couramment la langue officielle du Sénégal la langue officielle du Sénégal c'est pas le wolof du wolof du futanke du séeréer du joola du soninke c'est le français loolu constitution de ko wax. très bien maître alors. waaw pourquoi léegi yéen ngeen di xoolee yéen ñoom. journaliste maître ñu ñu bàyyi la nga nga soufflé waat candidature xam ni moo gën a garaaw. Euh, merci maître ki nga xam ne moom perdre na nationalité française. merci di euh, dinaa ci ñëwaat léegi dama la bëgg a may. nga soufflé tuuti euh, c'est pas normal. dama la kenn du ci wax. Mhm. te xam ngeen ni Serigne Mbow ne parle pas français couramment. dinañ ko yaatal conseil conseil xam ko moom it gëm ay bëtam. ñeneen ñeneen am nañ nationalité yeneen. conséquence di nalaw xoolu ñeneen càmbaru leen. Eh kon daal rek monsieur Wade. Mhm. moo ci am honnêteté. joxe décret. xëy na bu joxe wutoon décret bi. comme yéen ñenn ñi làqu ñëpp. kon da koy bu jàll. 2019 dama ni. boobu ndax amoon ko. bi bind bi. dem ba ci autorité consulaire. ni ko bëggatuma nekk français Sénégal yi rek laa bëgg a nekk. 2018 dindi leen ma dindi leen ma seen i affaire. loolu ba ko bindee 2018 2019 dafa bokk ci élection yi. très bien te loolu boo continué ba léegi xam nga yéex nañu ko tontu mais 2019 conseil constitutionnel bi fi nekkoon dafa doxal yoon mais bii pas <laughs> affaire bi doy na waar. très bien maître. boo mënul làkk français ñu bàyyi la nga jàll boo benn nationalité rek doo jàll. boo mee ñaan am nationalité comme Rose Wardini nga jàll. très bien merci loolu tax président reporté daal di approché. Euh, élection et décret. dinañ ci ñëw bi ko bi le 25. Mhm. ndax ñaaxu bi daa bëri woon plus. ñu ne conseil constitutionnel dañ koo ger am na ñu jox ay milliards. Mhm. am na fa ay njàqum. loolu dinañ ci loolu bu ñu waxee. Mhm. élection mënatul am. loolu loolu moom foog ñu ñëw ci ci lu yaatu. final kan bi passé nii. arbitre bi ñu décidé kaaf. bu ñu déggoon ni am na corruption bu fa am.

inhibé arbitre de xëy na mën a changer match bi décalé final bi ndax dafa am soupçon de corruption. Eh ñu jël arbitre yoo xam ne ñibbi nañ seen dëkk. ndax dañuy éliminé woon ñu ne ñëwaat leen arbitre final bi. alors donc nit ñi nañu yeewu li ma gis nag. alors mais yàlla ci yàlla musal. maître nga ay nit ñu am bopp am bët di ma. may ma foofu rek fekk li may wax ñoo ngi la. mais yàlla xaw ma lan la dañoo këf seen xel yi. très bien alors maître nga nga may ma foofu rek ma mayaale la nga souffler un peu ñu ñu demaat euh, amal une très courte pause bi dellu si waat. seen émission Grand Plateau numéro un des émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd kook Orange Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarte Bridel meew nag piir bi ngeen Ecobank la banque panafricaine Sénégindia numéro un ci wàllum immobilier Sénégal indil leen gam bu yaatu ci villa appartement au standing point E résidence évoque ca Bourguiba ak ay parcelle viabilisé ñoom city ca Njaaxirat ak Tulip City ca Bambila Canal Plus dund leen korgu sell ak chaîne yi Pressia Beko bi leen indil ménage bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis ans Sedima bi leen indil local 100% sénégalais 100% halal Lama Boutique indi leen bazin fusinégueur 100% coton bazin bu am brillance bu amul fenn motif pour góor ak jigéen bijouterie la solution jigéen boo koy pégal seetil or bijouterie la solution yu bees yi mu indi amul fenn Sen TV ak i partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Mubarak jot wërsëg yu bees la ngir doxal say mbir. teg beneen jéego di gën a jege sa ay mbëbët kon boog dem ci jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee ak yokkute Nescafé. bijouterie la solution arrivage yi yegg si na ah gaañ yu baax ñi jigéen ñi xam nga lan la ñu bëgg or jigéen ku koy bëggee loo koy jox or bijouterie la solution madame ñoo aji caam wàccee yu bees tàq tàq tàq tax yii mi ngi nii di soog a egsi waaw waaw bijouterie la solution yii bijou ma fa gis yii bijou yuy soog a egsi yii nouveauté yuy soog a egsi bijouterie la solution li ci bague li ci collier li ci boucle d'oreille waaye dama ni góor ñu baax ñi laay waxal de dama ni góor ñi ko mën laay waxal de dawal gaaw seeti aji ci am complot moom mu tànn la baax pour madame bijouterie la solution. Oh, no, no, laama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko bazin 100 pour cent coton ñu ko Fusneger éminent bazin bu am brillance bu parfait bazin boo xam ni ba ci troisième ak quatrième lavage day am brillance le parfum revient en frottant le tissu grâce à sa nouvelle technologie même six mois après le lavage waaye bazin Fusneger yamul foofu de laama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko bazin Fusneger Vienna de coton 36 pour cent de viscose riant mu am motif yu rafet motif couleur yoo xam ni mosoo koo gis ay motif pour góor ak motif pour jigéen yoo xam ni macha allah mu am trois dimensions yoo xam ni yépp rafraîchissante pour la peau brillance bu parfaite même boo ko fóotee ñetti. teewlu leen émission grand plateau mu ngoog euh, de retour cher euh, téléspectateurs ci seen plateau GP euh, grand plateau alors euh, ñu ñu wëy waxtaan wi waaye maman maman Diallo bëggoon naa ñu ñu mayewaat tuuti joxe ci xéewal yi maa ngi gis que commentaire yi mu ngi bari nit yi ñu ngi insister également comme nu ñu leen ko waxee woon tout à l'heure voilà Khady commentaire yaa ngi bari trop ñi ñaa ngi réagir bu baax a baax donc ci Facebook euh, live bi kon ni ma ko waxee sànq ne leen di euh, envoyé seen tour ak seen numéro téléphone ngeen wax ñu tamit fan ngeen ni seetaanee euh, seen émission GP enveloppe bu duun moo nekk nii donc nag mun naa commencé joxe ci xéwal yi ma daal di tànn kenn rek ci Facebook live bi mu ngi tudd. Ababacar jéeju moom mu ngi dëkkee ba Sédhiou donc Ababacar Diédhiou sa numéro téléphone mu ngi nekk 77 764 92 ak li ci topp am nga fi euh, benn enveloppe bu 25 euh, 000 francs euh, ma daal di continuer xool koo xamante ni moo gën a réagir tamit gis naa ni ku tudd Alioune Badara Samb moom tamit commenté na lu bare bare tey ci émission OGP bi Alioune Badara Samb sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 77 065 40 2023 ak li ci topp donc bu ci kanamee léegi rek ma daal di euh, buñ ma joxee benn appel ki ma njëkk jot rek dinaa ko jox benn enveloppe bu 100000 euh, francs wala ma jox ko ci saagu Matidi yi ci montre di yi yéenay xool rek loo bëgg rek loolu laa koy defee mais Khady aussi dañuy remercier tamit suñu partenaire ku ci mel ni euh, Orange du ñu fàtte benn Nescafé bi nga xamante ni café la boo xamante ni kenn dootu ko présenté ti naturel de qualité euh, supérieure mu ñu àndil une large gamme de produits gis ngeen ay pots yu 100 grammes euh, ak 50 grammes ak stick bu 1,5 bi lu ñu fàtte benn yoon tamit Bridel meew bi nga xamante ni meew bu eh, eh, maman est-ce que doo ñëw yëkkatil nit ci saag bi ñu saag matidi bi waaw dina ma neex c'est très joli wala dañ laa yeew. tey oustaz. saag bi sax dafa ànd ak sa dàll yi ma waaw dafa ànd ak sama dàll bi saag ma ci dafa rafet xadi donc euh, pour jigéen ñu raffiné yi la ah jigéen am classe yi. ñoom rek ñoo ko mën a téye donc mu ngi ni saagu matidi rafet na lool macha allah euh, gis ngeen ko ak euh, bu vert bi nga xamante ni dafa ànd sa dàll sax. dàllu Fatima daal di koy jël ko <laughs> donc euh, mu ngi ni saagu matidi la donc ñoom ñi ngi nekk Dakar Plateau boo leen ko bëggee rek mun ngeen doxantu foofu ndànk su ma gisee tamit keneen koo xamante ni bëgg na ko dugg leen gaaw ci Facebook live bi ma daal di leen may saag bi xam naa ne bëgg ngeen ko lool mun ngeen koo jël daal di koy doxantoo boo leen amee benn rendez-vous bu important important wala benn événement. soxna yi ñaar. Oh, oh, et puis maman tey anniversaire bu Fatou Abdoulaye elle fête ses 23 ans donc. Euh, macha allah. <laughs> kon Fatou est-ce que du ma la may cadeau bi du ma la may sac bi. service commercial bi man ma dugg defal loolu comme ça ma la saagu matidi bi. on la en ci biir semaine bi dinañu maye saag bi. dinaa la ci utal benn donc xadi ci biir semaine bi. dinañ maye benn saagu matidi. maye tamit euh, benn montre matidi. incha allah mi waaw am na bu góor am na bu jigéen. et eh, eh, eh, boo mënoon wane ma ne montre bi maman. mu ngi nii donc montre bi am na euh, bu jigéen waaye am na tamit bu góor mu ngi noonu moom la euh, Mouhamed te rafet na trop macha allah dafa yem ci loxo tamit. c'est très joli. <laughs> gis nga. neex na la ma jox la ko wala. <laughs> bañ duma ko bañ de. <laughs> <laughs> en tout cas bu bu jigéen bi rafet na. bu góor bi également rafet na muy bi nga xamante ni Mouhamed Diop moom la takk. Euh, également très très joli ah. ah. bi bari na candidat nag téléspectateur yee ko yaa ngi laajte mu xam. da ngeen di commenter rek. ngeen tolloo ak téléspectateur yi. ah sànni bëggee naa am bay rek merci beaucoup maman <laughs> dinañu euh, ñëwaat léegi kon ond ci euh, alors. Euh, maman am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo waaw. salaamaaleykum allo waaw maaleykum salaam. bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Idrissa Faye. Idrissa Faye. foo ñu woowee Idrissa. maa ngi wootee côté Ngaye Mekhe. Ngaye Mekhe. waaw naka waaye ngaay bàyyi nag ñëpp ngi si jàmm ngi si jàmm baax ñu jàmm baax alhamdulilah. noo dundee sa émission GP bi. kontaan lool di siyaare Oustaz Mouhamed. ni ko maa ngi ci biir. macha allah soppe nag. <laughs> waaw la lool. donc yow ci xéwal yi nga bëggoon. allo. ci xéwal yi nga bëggoon. allo waaw. ñu ngi lay dégg sëñ bi ñu lay dégg bu baax. ma ne ci xéwal yi nga bëggoon di siyaare Oustaz Mouhamed lu bari waaye maa ngi lay bi ñu ngi lay dégg. allo. ngi ñu ngi bi dégg bu baax sëñ bi. waa réseau moo xaw a naqari man maa ngi siyaar lu bëri émission bi kontaan nañ la ñu ngi koy bàyyi xel naasulee ba tey ñu ngi ci di ko bàyyi xel bëri. macha allah moom daanaka suñu kenn lu bëri. jërëjëf macha allah kontaan nañu yéen boo leen kontaanee rek ñun dañuy kontaan donc yow maa ngi lay may benn enveloppe bu euh, vingt cinq mille francs waaw am na am na ku ko buux ah. mën nga ah, jël keneen ko doon réseau bi daa saturé nag <laughs> ñu ko bëgg ci. xew allo allo allo allo allo salaamaaleykum. Euh, xëy na déggante bi moo des déggante bi neexul voilà. bu bu fekkee kenn nekkul euh, si ligne bi xëy na en attendant nga ñu dellu ci un ci partenaire yi le temps ñuy am keneen. voilà Khady comme ni ma ko waxee woon sànq dañuy remercier Orange Nescafé euh, mi nga xamante ne c'est 100 pour cent naturel kenn dootu ko. présenté ti meew nag pur mi nga xamante ni dafa riche en calcium baax ci mag baax tamit ci ndaw waaye du ñu fàtte benn yoon Ecobank la banque panafricaine Sénégindia numéro un de l'immobilier au Sénégal Canal Plus mi nga xamante ni ay chaînes yu neex la ñu andi la ci biir koor gi mais du fàtte benn yoon tamit jus pressé ya mi nga xamante ni moo nekk ni ñu indil ñu euh, bouteille brique bu un litre bi nga xamante ni ay vrai fruits ñoo ci nekk fruits yu naturel mu neex lool bu tàngee neex waaye bu sedee tamit dafay gën lool waaye du ñu fàtte benn yoon Beko mi nga xamante ni moo ñu andil gamme électroménager bu yaatu yaatu ak Matidi mi nga xamante ni euh, macha allah tey moom dafa bari ay soppe lool. un pionnier de luxe de luxe africain depuis dix ans mu andil ñu montre bi andil ñu sac à main bi. donc nag euh, mu ngi noonu rafet na trop macha allah am na seen boutique boo xamante ne mu ngi nekk ca Dakar Plateau boo leen ko bëggee rek doxantu leen ndànk foofu ngeen daan di jël seen sac à main yi wala ci seen euh, montre yi. du ñu fàtte benn yoon tamit euh, Sedima ni ñu andil poulet teral 100 pour cent naturel 100 pour cent sénégalais et 100 pour cent xalal lama boutique ñu leen di remercier bu baax a baax ñoo ñu andil tamit basin Fusneger basin bi tamit bokk na ci cadeau yi nga xamante ne dañ koy maye ci plateau ci ci émission grand plateau bi di remercier tamit. it bijouterie la solution euh, l'islam 2 mi ñu andil ay takkaay yoo xamante ni amul fenn xadi ñu leen di remercier bu baax baax suñu partenaire yi. waaw di leen di remercier et di rappeler également maman que euh, Nescafé suñu invité yi muy maître di également euh, suñu nabien du jour balaa ñoo dem am na xéewal yoo xamante ne jagleel nañu leen ko te dina leen dinañ ñu leen ko jox bu ko defee bu ñuy ñibbi ñu ñu yóbbaale ko. jërëjëf maman ba ci kanam incha allah. merci xarit ñu waaw anniversaire nag euh, Fatou Abdou happy birthday to you jigéen ju baax jigéen ju yaatu. yàlla na at yi gën a yokk di joyeux anniversaire laala itam sama benn doom bu tudd Mouhamed di doomu Khalil Gueye PDG moom itam maa ngi koy wax happy birthday to you Moustapha béggalal ma Fatou Abdou tey la anniversaire am min karimin abaawol kurama o ana ñi bëgg yant yàlla muhammad kayfa tarxa ruqiyakal anbiyaau yaa sama an matawalat a sama o salla alayhi wa sallam innama masalu sifatika linaasi kama masalal nujum almaa ana ñu bëgg sayduna muhammad lam tazal fi damairi la kaw ni tuxtaaru lakal umahaatu wal abaa sayduna muhammad lam tazal في دمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء سيدنا محمد ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه واصدياء أنا بغتيم بامل سيدنا محمد ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه واصدعاء وتوالت بشرى الهاتف قد ولد المصطفى وقلنا أنا نبغ سيدنا محمد سيدنا محمد تتباهى بك الوسور وتسمع بك عليا وبرا يا سيدنا محمد يا شيخنا يا أحمد تجاني خطب الوجود ونعمة الأكوان سيدنا محمد عد البيان لأليا متشايفا بالوافدين وجملة سكاري أنا نبغ الشيخ تجان لولا ما قد عرفوا بما حبيبي هذا الصاني الشيخ تجان لا تحصرا نتوصلا وتضرعا وترفقا بالعين والتجان انا نبغ شيخ تجان سلمى وسلع ديادتنا بتغرب كذوي الغرابة سايق الأوطان بحر تما وجقرها ويفيد منا isnil muhaymini baaril akwaane Cheikh Tidiane xat xasul مولى الطريق صفاتي يكفي السلوك بأن البرهان شيخ تجان أنا صبي سن بابا كرسي بن ساكن تي بابا كر كفي غن بك سن بابا كرسي بن ساكن تي بابا كر غلاوي مبكي غرابالاتو بن ساكن تي بابا كر كفي غن بك سن بابا كرسي بن ساكن تي بابا كر غلاوي صبي سرين فال yi yéen bu nu sàggan ci Babacar ngalawaay soppey Serigne Touba yi bu nu sàggan ci Babacar ngalawaay soppey Mam Limaamu bu nu sàggan ci Babacar ngalawaay soppey Mam Baye Niass yi bu nu sàggan ci Babacar ku fi gën a bëgg sëñ Babacar si bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan suñu bis bi lee ku ci sàggan ñu dem bala ku ci sàggan ñu dem bala ku ci sàggan ñu dem bala di yonent bi ku ci sàggan ñu dem di yonent bi ku ci sàggan ñu dem di yonent bi ku ci sàggan ñu dem ana ñu bëgg Seydina Muhammad yëkkati leen loxo ca kaw ku di yonent bi ku ci sàggan ñu dem grand plateau lay waye ku di yonent bi ku ci sàggan ñu dem ana ñu bëgg dem Medina ziyaare Seydina Muhammad ngir yonent bi ci sagal ñu grand palato ci sagal ñu fi la koy waye ana ñi bëgg Seyduna Muhammad yëkkati leen loxo ca kaw nu màggal yonent bi yëkkati leen loxo ca kaw nu màggal yonent bi su waayo d'anniversaire happy birthday to you ngir yonent bi ana ñi bëgg Sëñ Fallu Mbakke ana ñi bëgg Sëñ Fallu Mbakke murit Tijaan xaadir ak laa yéen laay waayal ngir yónneen bi at mu nekk ñoo koy tëj Fatou Abdou yaay anniversaire ci bisu Ramadan bi ngir yónneen bi bisu Ramadan bi weer wi ngëneel la weer wi yërmande la njëggal la ngir yónneen bi am nañu bëgg Sayyiduna Muhammad yëkkati leen loxo ca kaw nu màggal yónneen bi yoneen bi tijaan yi ñëw nanu murid yee ñëw nanu xaadir yi ñëw nanu laayeen yee dem ñëpp ñëw nanu ngir yoneen bi al amin al amina al amin wax leen al amin al amina al amin bi nga amee fukki at ak juróom benn la ko seen Babacar woo ne ko دخل العالم لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي من لنا الإسلام والكفر معاه wa bi nasihati li kulli damma ana ñi bëgg sëriñ Tuuba yaquudu bi daay baatini mana ataawo lillahi fi kulli zaman muhammadul misaalu wolam yaate fi mamada wa abadan la yaati sëriñ Tuuba ne sabata أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد أنا نبغ باي سرين فلنا لو سيادة ولول برا يوم ألستو ولا در صفاعة هو النبي والرسول الله والخليل هو الحبيب والإمام والدليل ana ñu bëgg sayduna muhammad barawa badiu min xayri jamal wasana alxudusa an xayril kamal kawnu nabiyal muntaxa ana ñu bëgg sëriñ muntaxa kawnu nabiyal muntaxa muhammadin xayral waral muxtaare inda samade ana ñu bëgg sëriñ fàllu sëriñ fàllu borom kumala alaaji fallu kawnu nabiyal muntaqa muhammadin xayral waral muxtaara inda samade kawnu nabiyal muntaqa muhammadin xayral waral muxtaara inda samade kawnu nabiyal muntaqa muhammadin njaareel waral muxtaar inda sama yéen ñëpp def leen ni kaw na nabiyal muntaxa muhammade xayral waral muxtaar inda sama de kaw na nabiyal muntaxa muhammade muhammadu rasul مولاي الورى المختار عند الصمد xam nga at mu nekk ñu ñooy tijji grand plateau te xam nga ni mag ñi dañoo baax maa ngay dem ca maam li maamu laay borom yoo fi géej njiinoo njiin bay laay maami bay abdoulaay caw sang seene maam bay laay jaam ñi yaay jaam ñi njiinoo njiin doomi baay Abdoulaye Thiaw waay sang seene maam baay laay yaay ramu jaam ñi yaay ramu jaam ñi njiinoo njiin baay laay maami baay Abdoulaye Thiaw sang seene maam baay laay yaay ramu jaam ñi yaay ramu jaam ñi njiinoo njiin baay laay maami baay Abdoulaye Thiaw sang siine mam bay lay ayra mu jaam ñe maa ngi jëm allah allah la ilaha illallah gaa ñi def leen nii la ilaha illallah wax leen ko allah allah la ilaha illallah warale al islam warale xurafet faal islam gaa ñi def leen ni allah allah wa ilaa ilaa allah allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah maa ngay dem Njaasaan nag la ilaha illallah Mamadou Rasoul Cheikh bu Kunta Njaasaan Cheikh bi doy nga noon la ilaha illallah ana ñu bëgg Cheikh bu Kunta borom Njaasaan surtout Seydina Muhammad Kunta Njaasaan seex bi doy nga noon loxo ca kaw yàlla yaa di buur mama doy rasool seex bu kontaan Njaasaan seex bi doy nga noon la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Sebu Kunta Njaasaan Seex bi doy nga noon Burgi ndar ndar nga daanati nga ndar ndar la daana ti gi ndar ndar la daana ti nga dundal nga jee dundal nga diine ana waa garaa palaato seen loxoy ca kaw nu màggal sëñ Babacar bi tawassal lil ajaati mooy géeti gaal ay ngir yàlla sàmm ngir sellam ke imaanam ndar ndar ati durun rasidun wa fawdun wal wada abadan seeku xalifati adil insi wal janni waalo waalo dan nga ndar ndar nga dan Serigne Babacar ku la jox xolam ba yow man xiyaam nga ne bul dem ba noon yow yóbbaale ma yow yóbbaale ma fa nga jëm foofu laa dem yóbbaale ma wala wala baa ngi nii daana dinga ndar ndar wa ay su ma laqaytu minkum waahida loxo ca kaw yaqulu ma ebe yakunu saahida ajila daawi daayi maxruufu noonu wa way min bayni maxruuf ay il faut il faut muallifun bila ajal sisil adata bi qawlin wa amal wa dak debun misbitun ma pasikar wa sadidul haqisa Dana eskay, dana dana tina, dana dana dana tina, dana dana tina, daanaka yow yaay ki mën a fay yaay ki mën a gël góor gi dar dar daanaka way dar dar la ilaha Muhammadu Rasulullah maa la wóoloo mu ngi bëgg neex nag. maa ngi nuyu Bambilor mu ngi bëgg a neex nag euh, euh, nee naa la euh, grand plateau yëg-yëg bi ma ci am mooy bés boo jëm. mooy daq bés bi nga xamante ni moom nga jógee nuyu sama yaay ajarat xujja waaye way wi nag dama ko may sama cummikaay Mbay Jóob Jamil bu Sëriñ Mansour si Jamil ay ca doxalal ñu dem xadi xadi jërëjëf euh, oustaz daanaka dugg nañ ci euh, euh, ëttu këru diine yëpp di la remercier bu baax alors ñu ñu ñu delluwaat ci maître Euh, maître El Hadj Diouf na fi jee yaa ngi ma doon signaler que da am une question. Mm-hmm. ci fi ñu taxawoon rek euh, Khady euh, mu di conseil constitutionnel xaaral ma yëkkati sama baat. maître mu ngi doon maître mu ngi doon <laughs> soulever soulever tout à l'heure ku wak yu bëri yi nga xamante ne am na ci mais en en en dehors de tout ça est-ce que aujourd'hui conseil constitutionnel mi nga xamante ne moom la ñuy jiiñ corruption am nga yaakaar ni mën na arbitrer ay ay élections. Coupe d'Afrique bu ñuy joué mu am ci arbitre bi war a final bi entre Côte d'Ivoire ak Nigéria ñëpp di final bi ñu dégg ni am na corruption xamuñ na dëgg la war du dëgg mais pour éviter l'irréparable dañuy écarter arbitre yooyu wut yeneen arbitre ñu arbitrer marché bi final bi kaaf continuer enquête am bu amee résultat yi dëgg la bu suspendre à vie à biir yooyu wala à cinq ans dix ans bu dee li ñuy ay accusation mal fondée taxawul arbitre yooyu joxaale leen seen ci ñu arbitre yeneen match ba coupe du monde sax loolu moo waroon am Sénégal ndax bu ñu la wooyee sage mooy dara warul laa tilimal sage les sages pour la première fois depuis ñu am élection présidentielle au Sénégal ñu waxal lu ñaaw tirimal deru conseil constitutionnel ñi nga xam ne la ñooy sage ñi nga xam ne il doit être irréprochable ndax luñ def rek kenn doom loo ci wax ñu ne dañoo sage bu ñu demee ba ni dañu ne jox leen xaalis bu bëri ñu tudd ay milliards dafay baax comme xamuñ ndax dëgg la du dëgg ñu écarter du jeu bu doon ñeneen dañuy mu démissionné Mamadou Seck ministre des finances de Ablaye Wade bi fi amee procès dafa démissionné dem procès gagné procès démissionné ministre des finances ministère bi gën a neex bépp xaalis bi ñu bëgg mu yore ko Mamadou Seck loolu gën a neex sax conseil constitutionnel ministre des finances du Sénégal ñu jiñ ko biir mu dem audience gagné audience am ñëpp si mais comme bi mu demee demee nañu Ablaye Diop ministre des finances pour mu remplacer ko ñu jox ko ministère des infrastructures ba fa jógee la nekk président assemblée nationale mais au moins càmbar nañ ko ndax ministre buñ tuumaaloon la mu raxas deram waaye général ñu jiñ la dara démissionné woo ñi la jiñ dem assemblée nationale ne dañoo bëgg ñu càmbar commission d' enquête liñ ne ger nañ ay magistrat wala ay membre conseil constitutionnel ñu génne benn benn communiqué menacé député yi porte plainte après député yi mm-hmm. te ñu xam ni jàng nañ droit xam nañ ne plainte bi bu ubbee information judiciaire day bloqué yàq liggéey commission d'enquête bi dañ koy freiné mm-hmm. na est-ce que kon ñoom nuru nañ ñu bëgg affaire bi leer déggoo ma ne dama ni ñoo war a xayma ndax yow mii gerte la wala déet mais yow xam nga ne boo porté plainte bu amee information judiciaire kenn du xam ndax dëgg la am déet ndax commission d'enquête boo commencé woon dañ naan ko eh, toog leen léegi fële. information judiciaire waru mën mënta leeral maître. encore information judiciaire bi mënul leeral mbir moomu. foogoon naa ni ndax information buy Bassirou Diomaye. Fadilou Keita. Sonko. ñaata weer tey ba léegi xamaguñ ndax li topp dëgg la am déet. bi day gudd. ay at lay duré de. élection day nekk. <laughs> ñoo war a dem ci un mois ñoo am commission d'enquête mu am information judiciaire ki xam ne mi na def six mois jëm kaw élection yi day nekk Fatou élection yi de nekk foog naa gën a mus ni yow da nga gëm accusation yi gëmuma ci dara non ndax da nga gëm tuuma yi teg gëmuma tuuma ko gëmuloo ko donc kon lu ñu war a mën a teree dem élection déedéet yoon moo ñu may ñu xeex ba que ñu ne ñu wax présomption d'innocence mërmal tamit dëgg la te man ba ñu koy xaar bi wala am amul fekkee wu man dama ragal sama bàmmeel tuuma dama kenn. mais nañu may ñu ñu ñu ñu càmbar buñ càmbaree dinañ xam ndax lii ñu tuumaalee conseil bi am na wala amul te loolu commission d'enquête dafa am délai di war a weesu six mois te ñoom comme dañu xam woon pour ñu changer élection yi. ñoom day war a gaaw génne preuve yi. léegi wax nga ko preuve amee. accusation de ah, pas en ah, deux heures de temps. waxuma deux deux jours hmm. boo tegee preuve ci table ji commission bi liggéey bi jeex na. léegi accusation bu ko defoon nag amul benn élément yoo xam commission bi jaru ko woon. mais mais ay ay lii la lii ay ay député yi est que dañu war a taxaw alors que processus bi mi ngi mais lii suñu frais daal kon dinañu xam daan ah. commission d'enquête bi. bëgg arrêté information judiciaire mën na leeral mbir mi fekk élection élection yi du nekk. du xaar élection du xaar. ah bien sûr foofu laa bëggoon ñëw. comme élection du xaar. Mm. bu ñëwee information judiciaire kon ñu ñu tubaaloon ñooy ñooy defar élection yi. bien bi wala arbitre final bi ñu tubaal ko dañ koy bàyyi mu arbitre bi ba pare ba jël coupe bi fekk jaay na match bi. parce que les décisions du conseil. léegi nag dañuy peut être daal bu neex. supposons yàlla bu am. Mhm. ñu def ba fal président par exemple fal nañ El Hadj Diouf chef de l' du Sénégal yàlla am benn jour léegi bu loolu bu amee. loolu nekk moom. ndax instant bii nii bokkoo. bii élection mooy am. élection waaw. <laughs> Fatou yeneen yi élection. ren laa bëggoon a bokk ñu ne ma doo bokk. xëy na 2029 ngay wax xëy ne bii oh, bi dama ne nekkoo ko. téere sama téere ma ko wax non dama nekkoo ko. dama ne dafa doo ko nekk. non dafa fàtte préciser mais non moom ko nekk yow. waaw loolu loolu sa yéene la. yàlla moom la la la mu denc moom la mu nar kenn dara. boo dee falu kenn mënu ci rek falu. waaye boo warul falu. la ñu dee pour yow doo falu. Mhm. li ma leen wax mooy hypothèse laa joxe Mohamed. Diop élection am ma ne yàlla lu mu am de li ma bëgg a wax ñu dem élection yi pare ñu ñu gis ne amoon na corruption amoon ak guerre bu metti que dañoo jënd président bi dafa jënd élection am léegi léegi luy am Sénégal. da di poser ay questions di raisonner lu mën a am la waaye mën na bañ am aussi. d'accord damay teg hypothèse dama ne bu amoon nag yàlla bu waaye bu amoon nag. dañuy dugal ci beneen crise ñëpp xam ne président bi dafa jënd présidence bi kan moo koy dangul muy nekk président du Sénégal président corrupteur dañ koy dañ koy arrêté pour haute trahison peut-être attention. fekk njaaxum bi am yëpp conseil constitutionnel boo ko teg Sénégal mooy ni crise ndax moom moo bañ a leeral mbir mi nanguwul ñu leeral continuer di di di àtte àtte ba ñu pare. nekkee li doon àtte lañ ko tuumaaloon dëgg la ma na yàlla bu nekk dëgg président bi jàll ñu ne ay enquête am après ñu ne ko da ngay xam nga Angleterre léegi ab premier ministre démissionné ndax luñ ko fekk ay tuuba yu dal ci kawam ba ci Tony Blair kese ay président gis nañu euh, affaire Nixon président Amérique ay écoute téléphonique ñu jàpp ko ci ñu daal di daa daa génn ci dàq ko présidence président bu defee erreur dañ koy dàq président boo xam ne dañ ko fal ci mbuxum ci guerre bu loolu amee ñu am preuve bi kooku musiba la. ma nga jàpp ne balaa ñu dem ci élection dañu war a leeral loolu. loolu dafa nekk préalable bu ma ci suñu intelligence xëy na man amuma intelligence. et pourtant yeneen acteurs yi ou candidats j'allais dire ñoom nañu nañu dem. élection ñooñu du ñu ay candidats. mais maître nag nangul leen seen. ñu ci bëri dañu ñoo dem nag dañu la validé ñu ci bëri du ñu zéro zéro zéro zéro un. mais le fait que court court ñoom ñu bëgg a dem ci élection boobu maître tey tey yi ngay wax. amul benn mérite loterie nationale ku jaar ay millions du mérite loterie ku tax nga jaar élection ndax su fi nga placé woon. mais mais yéen ko d'accord maître Tamba. d'accord nag yëfu dof waaw mais Tamba yëfu dof ku nekk nga am dara yëfu dof waroo cee tiitaru yëfu nit kay kay tiitaru bu ñëpp dofee bañ sàccee ubbi seen kër guddi ba ñu tëj kër gi ubbi néeg bi sa jabari naa sàcc bi ñëw jël dof. léegi maître élection bu amee le 24 mars. ko léegi yëfu dof boobu da nga ciy après. Hmm. dëgg daal man yëfu dof laa def. waroon naa tëj kër gi waroon naa tëj néeg bi budd bi mais dama ne la xaajaaral tëju tëju ma sama kër tëju ma budd kër gi tëj na ma bu ñu lay weneen baa ne romb gis kër gi ubbeeku mu dugg dugg nga ngi xëy mu daal di dugg xool jël sa yëf dem jël portable yi dem. léegi mais yëfu dof nga def. oui mais maître élection présidentielle bu amee le 24 mars nag. wala yëfu nit nga def. maître élection yi. li ngeen bëgg bu ngeen demee cour suprême parce que moo ci des ndax ñun amaguñu benn information ci information judiciaire bi par rapport ak soupçon de corruption bi li ñuy xaar mooy ajuma cour suprême mu statuer boobu bu fekkee cour suprême bañal na le front li nga xam ne moom la bëgg mooy dañuy dem élection le 24 mars 2024 bi ñu nekk lan mooy nekk sa taxawaay ku ci mel na yow. Euh, bu ko cour suprême bañee. élection ko day am xam nga. oui mais ci li ma jàng faculté de droit jàng ko ci avocat fanweeri at ak juróom am na ma nekk ko avocat li ma jàng mooy cour suprême buñ ne ko xaymaa lii ñu la jox lenn rek lay xool lenn rek lay xool ndax lii président wala préfet wala gouverneur wala ministre loolu mooy arrêté ministériel arrêté préfet ak gouverneur décret président de la république nga yóbbu ko devant la chambre administrative de la cour suprême cour suprême luy liggéeyam xool ndax décret boobu teg nañ ko ci yoon ñu ne ko xoolal loi bi li mu wax code électoral nee élection présidentielle campagne bi ñetti semaine lay nekk muy vingt jours nee naa la loi raay la boo ko jàddee da nga déraillé ci boo déraillé day war a soit ñu rëq sa ndigg mhm. wala yóbbu la réparation mhm. alors cour suprême luy liggéey day xool li nga wax dafa trois trois semaines yi ñu wax ne loi bi décret bii de respecté ko te li ngeen xamul mooy la hiérarchie des normes xam ngeen luy lool mooy constitution moo chef loi loi moo chef décret mooy règlement donc loi toujours wax ko bi député yi di moo tiim décret bi président di jël moo tax président bu jël décret daa war a xool loi bi loi bi li mu teg président def loolu bu ko deful. bu leen joxul dëgg maître. déglu bu ko deful président bu ko deful cour suprême day xotti annuler décret oui bu ko deful wala ministre. Mhm. noonu lañ koy def. mu ne bu ko deful. oui xalaatuma ko ndax li ma jàng laa la wax daf ko war a def. kon xalaatuma benn instant cour suprême man cour suprême. wala xëy bi ndax loi bi. dëkk bi non bi amul benn keneen bii benn laa gis bii benn laa gis. d'accord na ko bañ a def. boobu hypothèse Fat Abdoulah mais hypothèse avocat bi l'homme qui a appris le droit. ki nga xam ne liggéeyam mooy droit. mooy jàng droit. ki nga loi ci lay noyyi. moom lay tari comme ni oustaz di bi. très bien alors mooy. Uh-huh. boo taree Fatiha wala. falak ak naas yi wala nangam. Mhm. mën na la sàmm mën na la aar wala ayatul kursiw da ngay gëm lii mën na la aar. Mhm. mais li ma gëm. Mhm. mooy loi bi moo ñuy aar. loi mooy campagne électorale. très bien alors trois semaines bu ko président nanguwul. président jalgati na yoon. kon décret bi dañ koy xotti. voilà muy muy yi nga xamante ni euh, Nescafé moo leen ko jox. Ah, Euh, c'est gentil. voilà euh, mu muy yóbbal bi euh, suñu nabiyan du jour également suñu hôtesse bu bu yànji bi jox na ko. <laughs> mais par contre ndox ndox daal laaj naa ndox depuis deux heures de temps. ba léegi ki war a jox ndox mi léeg-léeg mu téye bu téye boo yàgg boo ñëwee man de jigéenu seen TV jaaxal nañu. day faat day faat dina leen indi léegi mu nekkoon kaddu euh, euh, bu baax a baax. léeg-léeg ngeen jël ba mu gisoo ngeen toogaat. Euh, maître merci beaucoup ñeenti yoon bu ñu génnee ni ba yàgg ñoo fi xotti dindi marque bi sa waay borom caméra bi xotti marque bi. nga taxaw lu yàgg. parce <laughs> que ko ñu waxoon ba léegi jox ñu wax. alors maître merci merci d'être venu maître El Hadji. man de tiital naa seen jëkkër yi. <laughs> suñu jëkkër yaa sant yàlla bu baax maître merci. <laughs> ma ma bàyyi la nga tàggatoo maître merci beaucoup. ah pare ngeen. lu di doy. waaw euh, am mbégte ñëw ci plateau grand plateau parce que fii sama kër la. defe naa li ma def ci émission kenn du ko compté macha allah. defe naa ni ci lay dundal démocratie ci ngeen nekk mooy oo ñëpp jox kàddu ñëpp. bi que léegi da ngeen farfeete benn boor waaye léegi wàññeeku na léegi. à dépend ci gis-gisu nit ki seetaan. ça dépend ci gis-gisu nit ki. am na ay temps nag xamoon nañu ne ngeen féete boole ngeen mais sama rakk bu la xam naa ni. Euh, critique la critique fait avancer le monde la critique et l'autocritique ni ngeen équilibré léegi neex na ma ndax l'information buñ ko fa bu far beeg bëree trop kenn du leen suivre te ñaa ñi dañoo far. mosuñu far déglu maître mosuñu far nag. mais comme léegi non dama daal dama seet dama leen mën ko bëgg bien. châtie bien dama bëgg kenn leen raw te ko yow yow colonel yow te yow affaire bëgguma la wax mais xam naa ne ko équilibré nga bu ngi def effort pour équilibrer mais daa far ba yàqu moom bu waxee rek xam ni daa bañ Macky Sall bu waxee rek du wax dara lu baax pour Macky lu nekk day seet contraire daal wala keneen boo xam ne ànd la ngeen ñu bëgg daan bu ñu rejeté rek bu ñu nanguwul li ngeen bëgg rek loolu la bëgg moom xam nga olof jaay mu ne ku wax feeñ moom day far toujours mais mu ngi def effort day métti loolu ndax moom yaramam mooy yaram far mooy Saliou Gueye aussi Saliou Gueye gépp xam ne ni booy wut ko bañ Macky Sall ci émission numérale demal Saliou Gueye jarul ngay sori du mas wax lu baax ci Macky Sall te bu ngay inventé toujours lu bon pour Macky Sall c'est-à-dire loolu day desservir suma xarit sama rakk bugaan qui est courageux. très bien koo xam ne am na na plus value ci presse ku am jom la ku am ambition la moo tax soxnaam si dem bi ko su saa di tudd di ko ñaanal sama rangoñ yi tuuru ndax jigéen bu baax bu ñëpp xam bu ñëwee liggéey jàppale jëkkëram nekk ci wetam di liggéey te du di daaw rek te du di nalaw rek kooku jëkkëram gërëm ko ak yéen di ko teeru tabal ajjana yi di ko tëggal mënul ñàkk ak yaayam ju baax ji jaaga a seen ak papaam ji sama xarit alaaji coon yàlla dina ne yàlla jox ajjana yi gën a rëy ca firdaw si ma ñëw regretté rëccu lu ci ci fii nga xam ne du dara fii fii fii ay naxee mbaay la àddina du dara comme tax nga ne nañ dem leen dee ku dee yaa juraat ay wax yu rëy na mhm. comme tax nga ne mortel combat àddina gi très bien comme tax ngay taal fu ne kër jàmbur yi. jërëjëf maître. ba pare nga bëgg a ji. jërëjëf maître monsieur Roch Diomaye zéro voix. Mhm. jërëjëf xanaa réseaux sociaux yi duñ fal kenn bureau de vote yi ñooy fal te xale yooyu kenn bëggu leen. jërëjëf maître dama demee sama sondage. Mhm. amuñ 7 pour cent. merci beaucoup merci beaucoup. léegi nag ma nuyu Sénégalais yi. Mhm. yéen laa bëgg. yéen a tax may sacrifier di jël ay risques ñu di ma saaga. équipe équipe Sonko yi di ma saaga de Morgan à Ousmane Tounkara ak ñu nekk France ak nekk Sénégal organisé wu ay terroriste ay fasciste ay nappatekat comme faale ma leen maa rajaxe di leen attaqué di leen mbëkk dañu ma baal dara noonu la c'est le jeu démocratique waaye leen Sénégalais yi mm-hmm. am leen fula gu toll bi mm-hmm. xale yu réer yooyu ñëw pour taal réew mi ànd di saaga nit ñi di saaga xalif mm-hmm. Maye Niass baa ñu sëriñ sëriñ Mbaye Sy Mansour bàyyiwuñ suma xalif général sëriñ Mountakha bu Bassirou bàyyiwuñ kenn génération boobu xale yooyu kenn du leen jox suñu Sénégal gii bu leen kenn gëmloo ni mhm. dañuy gaje élection yi dañuy ne nax ñi ñëw wuy si leen ñoom ñëpp mhm. ay maritaw ay ñu ma xamul ay ñooñu kenn amu ci zéro virgule wu donc mënuñu la jox ñaari fois ba ñu gagné dara am ngeen fulla mhm. fal ki nga xam ne moo gën ci Sénégal ëllëg mooy Me El Hadji Diouf bu bokkee bu bokkul nag bu ci élection yi gëm naa <laughs> ndax dañ koy tas mhm. ndax élection yi élection yi buñ mhm. président de convoqué peut-être deux jours wala beneen dix amatul ku bëgg a bokk bokk Mohamed Diop bu bëggee rek président bokk bu gar ngay daal yi ñu ay voix bokk très bien El Hadji Diouf bokk bëggaat nekk président. incha président. incha allah merci beaucoup El Hadj c'était un plaisir yàlla jàmm yàgg. ci weeru koor bi yàlla ñu yàlla dem yàlla aar Sénégal. jàmm. amiin ku jàmm. amiin yàlla la yàlla <laughs> vive le Sénégal. merci vive la République. merci beaucoup Fatou Abdou Ndiaye merci. merci Khady. maître bal naa la kobos yi nga ma kobos bal naa la ndax màgget <laughs> dama la wax dara sa ça dérange pas bon moom liggéey bi ñëw ànd xam naa da ngay kaf sax mais loo ko <laughs> dama doon neexal rek mais bu ma ñii naan da ngaa far ñee naan ma da ngaa far jàpp naa ne ba tey maa ngi jëf jéego pour nekk ci yoon bi. yaa ngi jéem man xam naa man xam kaf. moom tay moom yéen a ngi équilibré. d'accord waaye da ngaa faral di ko yàq. amul benn ah, problème ak nga faroon daal. Ah. <laughs> mooy déedéet alors maa ngi remercier. yaa ngi Serigne Saliou Gueye. ni ngeen naroon. Ah. amul problème weeru koor maa ngi remercier Maguette Maguette euh, Magique euh, euh, pinceau magique moom mi ngi fi nga xamante ne moom mooy Ouest Foire derrière la fédération sénégalaise de football moom moo jaar ci maquillage bi jaar ci bopp bi numéro téléphone am mi ngi nekk 77 597 04 16 di remercier ñëpp ñi nga xam ne xade ñu ngi doon seetaan depuis tout à l'heure mm-hmm. Mouhamed Diop merci. merci Khady euh, gërëm téléspectateurs yi di gërëm sunu invité ci disponibilité bi di sant également ñi nga xam ne ñoo di nabiyen yi ñu wuy si tey am mbégte bokk ak yow plateau ak ñi ñu ko bokkal di la jox euh, peut-être rendez-vous demain incha allah jërëjëf Fatima. merci beaucoup Khady euh, di jox nit ñi rek. ak jàmm di remercier bu baax a baax euh, sunu invité bi nga xamante ne ne bu ñu daan nekk tribunal euh, papa lañ ko woowee ndax dañu daan sonal bu baax a baax euh, donc di leen jox dig daje incha allah ba ëllëg ak jàmm. incha allah Nafi merci. Adi Lo à demain incha allah le temps de remercier Kodo Vision Coiffure by Fili comme chaque année c'est elle euh, pour la mise en beauté. Euh, du ñàkk plus ñuy dem rek plus ñuy joxe ay ay information ma <laughs> yow yow suba sax il faut code defaral dara foofu tey woo naa ko ba sonn suba dinaa dem suba da lay jël incha allah merci beaucoup euh, oustaz xam naa yéen la ñuy tëjee merci euh, dama lay remercier ba pare après ñu ñu soog a tëj d' accord kontaan naa maa ngi lay remercier yow itam di remercier maître El Hadj Diouf uh-huh. ci teraanga yi mu ñu jox nit ku baax la nit ku am yëg la ñaanal ko sa mébét ci réew mi yàlla na la ci yàlla jàppale yow itam euh, maître euh, di nuyu bu baax a baax xadi euh, njañ sama xarit bu njaga sama xarit bu bambiloor ak gorom nu yaay awa fay bu njañ jóob monsieur le maire Mouhamed yaakaar naa xam nga ko bu baax a baax nuyu waaw sa goro nuyu mbay jóob Jamil sama xarit sama féete. sama seexu màkk la. moom ak daam bu leeral. bu baax bu baax bu baax. daam dégg bu leeral njaga ak moom ñoo bokk benn maam booy Diawo waaye nuyu euh, ki nga xamante ni moom mooy Ablaye Ndiaye bu yéen sama xarit yëpp. Eh. di ñaan yàlla ni ñu ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu ko eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. xadilu des. ma ma tàggu mama après ñëw ñu yëkkati te tëj. yaa ngi tàggu ku tabe yaa ngi tàggu. baax national. <laughs> maman nga soxla <laughs> xaj kontaan naa trop euh, partager plateau bi ak yéen di remercier bu baax suñuy invité bi ak euh, nabiens yi di profité waale di euh, jaajëfal Bamba Couture pour la tenue ah Diarra Beauty pour le maquillage ak ay Salon Mame Awa Mbaye pour la coiffure di remercier aussi suñu. ay partenaires que doo doo kii tuuti ñu xool Bamba lu mu def maman. ah da nga bëgg ma génn. Ah. wala day metti du <laughs> metti <laughs> fi ma awoon sànq moo metti mais fii du metti en tout cas. très jolie la tenue macha allah. merci beaucoup Khady donc euh, merci à Bamba Couture pour la tenue ah ku ko bëgg rek da nga koy wax 77. rafet na 419 32 32. merci macha allah na trop. <laughs> merci beaucoup man également comme chaque année chaque jour euh, may remercier bu baax a baax Pape Bey euh, le jeune tailleur nekk fële ca ca Yëmbal euh, di Yëmbal soriwul sa koñ oustaz Pape Bey maa ngi koy remercier. waaxu ba romb policier ba ñëw ci station bi rek jël sa góos koo ni Pape Beye mun la xam naa ko. waaye am naa problème ak moom nag doxalal. dinaa wax ak kon oustaz ma bàyyi la ak suñu nabiyan. Ah. ay wa Moustapha ñu ngi jaajëfal sa wayjur Baye Sogg mhm. ay ca yow la ñu déglu ah tabaarakallaahu nu sant sunu wayjur yooyu nag suñu baal xaaji Gora Sogg eh, ñaanal ko yàlla defal ko tawfiix ci daraja yi Seydina Muhammad ak suñu wayjur wa sunu yaay soxna Binta Diop ak sunu yaay mhm. soxna Aminta Njaay yi nga xamante ne bi dara dul dara la ñu jàppoon téyuñu ñu ñaanal ko nuyu sunu ba Aliou Fall moom it nekk ci xaar yàlla ñu ngi nuyu waa Ndar waa Paal tabaarakallah bëgg ñoo dugg ci mission ba taay waaye mënuñoo fexe ba egsi euh, ñu nuyu waalo waalo yëpp ak mboolem soppee Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee rek bu matee rek ñu tëj maam rawaana nga caaraw doom ba ca Paal yow mi raw doom ba mooy sunu maay ba gawaar yaareel eh. ma paa maam rawaana nga ca raw doom ba ca yow mi jëmboori ndar ziyaareel ma paa yow doom ba moomi baasiiroo yam boori ndar diya gaañi dafa leen ni mama ahmad woote naa lu ne feste du tiis daweeb leer ba faa nanga jaa raw doom ba jaa kooku mooy sunu maam yaayam bo bu leen ni man kii may bëgga way Maodo gani def leen ni man kii may bëgga way Maodo ko ay waay kon gaañi ne leen kaar rawaan raw na leen raw doon waaw waaw mboore ndaar si yaareel ma gaañi def leen ni man ki may bëgg a way Maodo ka way ah, man ki may bëgg a way Maodo ko waxoon kon gaañi ne kaar rawaan raw na leen rawaana nga jaar hani def leen ne mboori ah, ndaar ziyaareel ma paa yow mi jëm mboori ndaar ziyaareel ma paa yow mi jëm mboori waaw ziyaareel ma paa mam Khalifa Babacar Sy jël na ndam yow yaay borom leer mam Khalifa la wa innani qad kuntu min alin dari alin dari wa maskani bi haladari andare andare اثنان أربعون قل ذاك العدد ذاك العدد لنورة دار إذا رمت المدد سن رمت المدد إذا رمت المدد سن رمت المدد خليفة بابا كرسي جلنا كفي كنا بك سن بابا كرس الله يتكاو بابا كرسي جلنا دملا منصور ما جغنا وما سنجن دفني ma waayal leen maam Mansoor alaaji Mansoor Maalik ay sëñ Mbay Mansoor turando soora Jamil may alaaji Mansoor alaaji Mansoor Maalik ay sëñ Mbay Mansoor loxo ca kaw inni xalaftu bi rabbil bayti واوا ما إن رأيت فتى فينا كمنصورا نجل الإمام الهمام الحاج مالكنا موي شيخ المسائق محرير من محرير مم منصور الحاج منصور مالك باي زين باي منصور ما تغنوا بايا والبايا milaadi loxo ca kaw arabtul wara sharqan ku sopp yonent bi dafa lii loxo ca kaw arabtul wara sarqan wa garban wala ara kamisli fatal mansoor fi saa'iril wara ida sabaqa al aqwaamu yawman ilal ula yakunu imaaman fil wara wal wara walwara walwara walwara Mamadu Mansour Grand Palato walwara Mamadu Mansour Sey Mansour dundal boole ca wér fii Ñattuwaar yàlla defaat déwén kenn bañ a ci daraja Yonent bi